aouzu billahi mina seytaani rajim wa inni auzu bika wa suriyataha mina seytaani rajim rabbi aouzu bika min hamasati sayatin wa aouzu bika rabbi an yahduruni barke borom tuba mbokk julli tedd yi rawatina sunu mbokk taalibe yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo am mbégte bu baax di nuyu mboole mbokk yi nuy bàyyi xel te di ñu seetaan di ñu teewloo ci ay barab yu fasantikoo ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax di sant yàlla borom bi subhaanahu wa taala bu baax ndax moo ñu mayoon daaw ci waxtu wi nu fekke jataay bi ak wàccaay wii ñu leen di bëgg a digtal di ko ñaan yàlla sunu borom moom mi dul jeexal dara mu may nu nu fekke ko ay at yu baree bari ñaan yooyu nag ak cant yooyu noo ngi ci jiital ak ñaanal a cheikh mu muntaxa mi toog toogaayu cheikh ahmadou bamba xadim rasoul di ko ñaanal yàlla sunu borom subhaanahu wa taala mu yàggal ko fi lool mbàkke tamaanda ku wér waaye di ñaanal bu baax cheikh mahamadul bachir ibnu cheikh ibrahima faati borom darul moxti mi toog toogaayu cheikh ibrahima faati borom darul moxti noo ngi ñaan yàlla sunu borom subhaanahu wa taala mu yàggal ko fi lool tamaanda ku wér waaye di ko ñaanal bu baax sëriñ xaadim mbàkke docteur mi toog toogaayu sëriñ mouhamadou aw balla di ko ñaanal yàlla sunu borom subhaanahu wa taala euh, yàggal ko fi lool tamaanda ku wér waaye nag di ñaan ak ñaanal bu baax jàmbaar ji nga xam ni bu ñu demee tey ba mën a fàttaliku wala ñu dem tey ba mën a jariñu wala ñu dem tey ba mën a teg loxo ci lii nga xam ni ñun ñëpp barkeelu la ci ñun te lu ñu am ci sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim moo nu ko may muy soxna su baax soosu di soxna Faty Isse Diop noo ngi ciy sant ak a fàttaliku ak ziyaar ak a ñaanal koo xam ne lislaam du ko fàtte yoon wi du ko fàtte mbokk gi du ko fàtte waaye jëfam yu rafet itam tax na duñu ko fàtte te doyoon na ci sëkk soxna si ñuy bëgg a waxtaane muy sëriñ Fadilou Assa Dieye ibnu cheikh Mahamadou Awa Balla ibnu cheikh Ibrahima Fati borom Daarul Muxti mi nga xam ni mooy ke leeru soxna si ñuy bëgg a waxtaane di soxna Fati sa Diop mbokk yi loolu nag ñu di ci ñaanal bu baax ki nga xam ni moo toog toogaayub sëriñ Fallou Assa Dieye muy cheikh Mahamadul Basir moom sëriñ Fadilou sa Dieye Mbakke noo ngi ñaan taxawaay bi yàlla na yàgg lool mi ngi nii ci biir jataay bi toog ndax way juróom bu baax wa kenn ku ne xam na fi ko céyeen tolloon kenn ku ne xam na fi ko soxna si tolloon wa tabarakallahu moo tax njabootam gépp bëgg-bëgg boobu lañu am ci soxna si yéene jooju lañ ci soxna si moo tax teewaay bi Mbàkke rëy na ci nun lool noo ngi am mbégte itam di rafetlu teewaayu ki nga xam ni mooy sa jëwrin moom nga saytu loolu lépp lu jëm ci màggal gi muy Serigne Abo Mbàkke moom Serigne Fallou si jeey te moom itam mu ciy taxaw taxawaay bu rafet boo xam ni boo ko gisee muy dem rek da nga xam ni Serigne Fallou si jeey yàlla fay na ko diggam ak céyeen yàlla fay na ko diggam ak soxna si ngir lu mu naa loon bëggoon ko yàlla jox na ko njaboot goo xam ne fa tabarakallah foofu rek la ñu teg seen ab tànk Mbàkke noo ngi lay nuyu bu baax te di la ziyaara di nuyu ak ziyaara bu baax Serigne Mbàkke eh, alaaj Serigne Sàll Mbàkke mi nga xam ni moom itam bu ma ko tuddee mel na ni bu Serigne Abo Jàlle ak Serigne eh, Serigne Basiru mboolem njabootu Serigne Fàllu gépp mel na ni ñoo ngi fi ndax njabootu Serigne Fàllu la boo yëkkatee kurus gépp ay jóg wa tabaarakallaahu kon sëriñ Mbàkke ak magam yu baax yi mel na ni njabootu sëñ Fàllu gépp ngi fi waaye nag fii ñu teew boroom borom daaru muxti gépp wéttali leen fi ci ndigalul Cheikh Mahamadul Bachir waaye itam euh, noo ngi rafetlu bu baax teewaayub euh, sëñ Ousmane moom daa bokk ci ñi war a waxtaan moo tax ma bëggoon bàyyi ba agsi ci ñi nga xam ne ñoo war a def waxtaan wi ñoo ngi lay nuyu Mbàkke te di la ziar yow itam doo teguñu ko ceeg ni da ngay leeruk sëriñ wala ngay sëtub soxna si tax nu teg la fii waaye sa gëstu ak sa yitte ak sa bëgg lu baax ak peeg goo peeg taxawaayu Serigne Fallou diggam ak Thièyeen ak diggam ak bokkam moo tax euh, cellule de communication bi ginnaaw ba ñu defee appel bi tàmbali plateau yi nag ñu fas yéene tàmbale ko ak yow noo la ci gërëm di la ci sant di la ci ndokkeel bu baax ci teewaayu njabootu borom Daaru Moxti gépp ndax Serigne Mahmoudan moom Cheikh Mahmoudul Bachir moom borom Daaru Moxti mu ngi nii toog toog fii ngir ñaar fii may wax yow jataay bii moo yor. kilifteef gi moom la ñu fi xoolee nag njabootuk sëriñ bi war a yegg si yëpp ndax noo ngi xaarat yi imaam sëriñ Abdou Samane Mbacké moom sëriñ Mahamadou Awa Balla yaakaar nañu ni danañu dab ci biir jataay bi nu barkeelu ci ay kàddoom ndax ñëpp xam nañ digganteem ak sëriñ Fallou Mbacké noo ngi lay nuyu bu baax te di la ziar teew nga fi ngir ñaar ngir Cheikh Mahamadoul Bachir doy nga ko ci diggam ak njaboot gi fu njaboot gi woote danga nga bokk ci ñamu yabal mbaa yow lay yabal waaye nag nu xam sa gëstu ak sa xam-xam ak sa bëgg lu baax nu sàkku ay waxtaan ci yow diggante soxna si ak doomam ju baax ji borom darul moxti ak pësiyëf ak murit saadix gi doon doxee ba yàlla may ko tawfiix ju mag gi mu ko may waaye ci sunu wetu càmmooñ sëriñ xaadi mbakke moom sëriñ abbas di boroom xam-xam di nit ku baax di nit ku gëstu koo xam ni nii mu koy defee waxtaan noonu la bindee ay téere yoo xam ni foo dem ci àddina bi ci université yi gën a mag da nga fa fekk fa tubaarakallaahu njàngaleem mbaa njàngaleem noo ngi baax mbakke di la sant di la gërëm lii daal mooy wane ni lii waykat bi wax ni boo gëstuwul loo bëgg a xam cosaan la boo wëttuwut ñu far la wan safaan ba ki nga xam ne mooy saytu lépp lu jëm ci wàllu communication màggal gi muy Serigne Abo li mu yore xam na ko te ku xool jotaay bi rek foto fa tabarakallahu da nga ko xam noo ngi am mbégte bu baax ci taxawaay bi soxna maam Faati Mbakke mu mbay Cheikh Khady mi nga xam ni teew na teewaay bu rafet bu ma ko tuddoon rek yam ci mel na ni ku satoo ci borom daarul moxti tey jigéen yaa ngi ci biir salle bii noo ngi rafet lu baax taxawaay bi soxna abi mbakke mu mbay Cheikh Khady moom itam noo ngi rafet lu teewaay bu baax soxna muslim Mbacke mu mbay Cheikh xaddi ñoom ñëpp ñoo ngi ci biir plateau bi waaye feggoog soxna aji Mbacke moom Serigne Fallou si Dieye ak mboolem ñi nga xam ni ñooy jàmbari Serigne Fallou si Dieye yi danaa dellusiwaat ci ñoom ñëpp magi taalibe yi bu ma tuddee Baye Samba Diop mais tudd Serigne Fallou ture dana man ni tudd naa mag ñëpp ndax njabootu Serigne Fallou bu fekkoon dama leen bëgg lim ngir baaxam ngir ni ko nit ñi doyloo ndax na mu doy la woon waajuram ba mën naa fee fanaan te du ko yeggale te ñi ci saal bi ñëpp ku ci ne xam naa la nga xam ma sëriñ bi tax nga teew xam na la te loolu yaakaar naa ni doy na sëkk euh, noo ngi am bu baax ci mbokk yi bàyyi xel ci ay gox yu fasantikoo mbokk yi nga xam ne itam ñoo ngi ñuy bàyyi xel ci euh, télé yu baree bari fa tabarakallahu Touba TV noo ngi ciy ànd ak ñun waaye làmp Fall TV noo ngi ci ànd ak ñun ak euh, Leeral TV noo ngi ci ànd ak ñun di sant bu baax sëñ Mbegere ci réalisation bi ak mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu mbokk yi dañu fas yéene dugg ci waxtaan wi nag fas yéene ko tënk ci dund ak jox jëfi soxna Faty Issé Diop waaye dund ak jëfi borom daarul moxti ndax mooy ak fayam waaye taxawaay nag ak jëf ak yitte ju rafet yi nga xam ni moom la jàmbaar ji nga xam ni nag moo ñu wan soxna si muy sëriñ Fallou sa jéey bay Fallou borom daarul moxti mi nga xam ni wala fi dañuy wax ni jinax bu génnee dañ naan jinax ji génn na waaye bu janeen génne nag janeen a ngoog rek la ñuy wax waaye duñu ji génn na ki nu njëkk a wan soxna si nga xam ni moo tax ñu jariñ ci moom moo tax ñu tiim ko te borom daarul moxti Serigne Touba ni woon ko loo fi am tey ak ëllëg ak booba añub lëggéey yëpp soxna Faati Jóoba na yow bu ñu demee yow mal xiyaam ngay soog a añ te ku la xam sax dana añ te dana gañ bisub keroog yow rek a fay soli médaille yaay def ma toog maak sama ndey ak sama baay moo kii bu ñu dundoon ba bàyyi koo fi wala ñu dem ba yàlla wal buftu bi te tiimuñu barabu soxna Faati sa Jóob ndax dana nu jikk nun waa kër borom daarul moxti kon war na ci nun ku ci ne saa yoo yewwoo wala nga teg sa tànk ci yéen nga ni jaaraamaa jërëjëfati sëriñ Fallou Seye yàlla na ko yàlla sunu borom subhanahu wa taala fayal noo ngi fas yéene tàmbali waxtaan wi nag jox sëriñ Mahmoudan moom sëriñ Bassirou Anta Niang mu nuyoo ak mbokk yu nuy seetaan te bi di ñu bàyyi xel bu ñu noppee doog ñëw ci mbokk ci de sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu nu bàyyi la nga nuyoo mbokk yi xam ne nooy seetaan aousu billahi min asheytaani wa inni u'iisuhaa bika wa surriyatahaa mina saytaani rajiim rabbi a'uudu bika min hamasaati sayaatiin wa a'uudu bika rabbi an yahduruun rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk ci turam ak ci santam di am mbégte bu baax ci teewaat ci jataay bu màgg bi waaye jataay bu tedd bii nga xam ne jataay bi yëpp mbégte la ngir lan ngir jàngale soxna su tedd ci diine soxna su tedd ci lislaam soxna su tedd ci aada muy soxna Faty Isseu Diop nga xam ne royukaay la boo xam ne waris na koo mën a jàngal jullit ñëpp waris na koo mën a jàngal àdduna bépp ndax jamono jii ñu toll lu nu itteel la ndax ñu bari dañuy wax ne royukaay dafa manqué. Mhm. te fekk royukaay yi ñu ngi fi. Mhm. kon ñi ko war a jàngale am nañ aw sas. kon Cheikh Mouhamadoul Basir. Mhm. ñu ngi leen di sant ci taxawaay bu rafet bii ngeen taxaw ngir jàngale koo xamante ne di jàngalewu leen ne seen maam la jàngalewu leen ne dafa bokk ci seen deret jàngalewu leen lenn lu dul li ñëpp di wax ne dafa manqué bëgg ngeen a won nit ñi ne loola manqué wul kon ñu ngi leen di nuyu ci turu Serigne Mouhamadul Basir mi nga xam ne moo fi nekk ci bopp njaboot gi yëpp ñuy ñaan sunu borom mu guddal aw fanam te wéral ko te jàppale ko ba mu àggale waaye it noonu lañuy nuyoo di ñaan di sàkku ci mbooloo mépp ñu ñaanal jëmm ji ñu may lii mm-hmm. ba tax nu mën a toog fii mën a waxtaane jataay bii mm-hmm. muy Serigne Fallou Assou Dieye ci njàmbaaram ci pas-pasam ci taxawaayam bu rafet ci himmaam muy dogu itte ju mat sëkk ba génneel ñu soxna si nga xam ne tey ku ne mën nga faa dem ku ne mën nga koo siyaare waaye ku nekkit mën nga ko waxtaane loolu ci farloom ci ak njàmbaaram ci lañu ko sunu borom génnele ba nu agsi ci jataay bu mel nii ba mën a toog ci saal bu mel nii ci Daarul Muxti toog di ko waxtaane ngir ñëpp roy ci moom kon fa mu nekk yàlla na ko sunu borom xare àjjana yàlla na sunu borom yëkkati ay maqaamaam te yëkkatil ko mbooleem njabootam gépp su ma waxee sëriñ Basiiru wax naa sëriñ Abo mi nga xamante ne moom lañ teg lii ci loxoom tamit di ci taxaw taxawaay boo xam ne taxawaay bu rafet la di ko taxawee fu ne it ndax bu dee fee ca Touba ma nga ñu fa nekkal ñun waa Daaru Muxti gépp bu dee fii ci Daaru Muxti it mi ngi fi nekkal njaboot gi yëpp kon taxawaayam bu rafet boobu ak fonk kilifaam googu ñu ngi ko ciy naw te di ko ci soññi bu baax a baax di nuyu njaboot gi yëpp sëriñ xaadim moom sëriñ Abbas nga xam ne moom itam wax nga ko léegi bibliothèque la su fekkonte ne moom kese toogoon na fi rek doyoon na sëkk ndax li ñu bëgg a wax lépp mën na cee wax lu baree bari di nuyu sëriñ Ousmane bi nga xam ne ci njaboot gi la bokk moom it ku ko diglu euh, gis ne taarix bii nga xam ne ci la ñuy waxtaane tey lu mu mémoriser la lu mu mokkal la te ak farloom ak njàmbaaram moo ko ko may di nuyu mboolem njaboot gi fi nekk yëpp sëriñ Mbàkke ak mboolem njabootu sëriñ Fàllu gi nga xam ne ñu ngi ñuy dégg ci àll bi yëpp ak mboolem njabootu borom daaru gi fi toog yëpp ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di wax ne waxtaan wi nag lu ci jub rek ngeen xam ne ci suñu borom subhaanahu wa taala la lu ci jaar na ne nit ngeen xam ne ci manqué teg doomu aadama la ngeen jéggal ñu ko jërëjëf jërëjëf euh, Cheikh Mahmoudane noo ngi am mbégte lool Mbàkke ci nuyoo bu matale boobu fa tabaarakallaahu noo ngi lay delloo nuyoo di la ko dellool mbokk yi nga xam ne ñu ngi nuy seetaan ci barab yu fasantikoo di la sant di la gërëm bu baax dañuy jox kàddu gi rek euh, ki nga xam ni moom mooy Seydina Ousmane moom Serigne Fadilou Assa moom itam mu indi li nga xam ne moom mooy kàddu nuyoom nu daal di tàbbi ci waxtaan wi ndax ku ne xam na ne Serigne Khadim danoo bëgg bu ñu noppee li fi Serigne euh, Mahmoudan mi waxtaane Serigne Ousmane mi waxtaane ko mu synthèse ko li ñuy waxtaan li xaat def ci taxaw seetlu waaye indil ñu ci am li nga xam ne mooy point de vue am indil ñu ci li nga xam ne itam mooy jàngatam tabarakallahu ndax boroom xam-xam loolu rek lay jariñ mbàkki noo ngi am mbégte lool ci teewaay bi di xaareen ni imaam Serigne Abdou Samad Serigne Ousmane nu bàyyi la nga nuyoo mbokk yi nu dugg ci waxtaan bi aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina muhammadin muhammadin almakin wa ala alihi wa ashaabihi sawi ridwaani wa tamkin rabbi israh sadri wa yasir li amri wa ahlul xuqdata min lisaani yafqahu qawli wajxal kalaami raasidan wa mursidan wa fikrati nawir wa xalbi arsida assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ngi nuyu mbokki jullit yëpp di nuyu mbokki taalibe yëpp di jiital ci nuyoo yi ak ñaani sunu kilifa nga xam ne ñoom la ñu toogal ci bërëb bi di leen jéggulu it bu baax a baax kàddu yi ak toogin wi waaye lépp di ndigal ak euh, fas yéene waxtaane jëmm joo xam ne euh, jumata waxtaane la jumata bàyyi xel la muy soxna Faati sa Diop di waaye juru borom Daaru Muxti di ñaanal it sunu kilifa yi nga xam ne ñoo nekk sunu kanam sunu borom defal leen tawféex bu baax a baax a baax di delloo nuyoo sëñ Mahmoudan moom sëñ basiiru di ko ñaanal moom itam yàlla defal ko taw feex ndax ku am sawarte ci liggéey bi waxtu wu ne mu ngi woote di soññee euh, bàyyi yëppam waaye nag damay wax ne ku aju ci borom daarul moxti rek lu ñuy defal soxna Fatou Issa yaa ca war a jëkk yaa ca war a mujj te loolu bu ñëwee ba ci kanam daañ ko leeral ba ñëpp xam ne mboolem ku aju ci boroom daarul moxti xéewal yi ngay gis fii di ci jariñu lépp añub liggéey soxna Fatou waaye léegi yu maam Thierno Birahim moom feeñagul kon noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di fas yéene incha bu ñu ñëwee danañ ci indi yeneen yoo xam ne mm, lépp it wér lay doon loo xam ne du lu ñu doon lu ñu làmbatu. foo xam ne ci bari dañuy wax ngir yëkkati nit wala ñuy ñuy wax ngir leneen waaye nun wax ni nga xam noonu la demee te waxuñ ko ngir yëkkati kenn ndax xam nga soxna Faati sa mu ne su ko ba mu weesu waajur borom daaru muuti bu ñu newoon waajur borom daaru muuti rek doon na sëkk waaye nag yàlla defal ko taw tawféex nag jëfi boppam joo xam ne kenn fekk ko ca te loolu incha allah buñ ci ñëwee danañ xam ne loolu moom rek la ko yàlla jagleel. barakallahu jërëjëf jërëjëf euh, Seydina Ousmane noo ngi am mbégte bu baax te di la sant di la gërëm ci nuyoo yu am solo yi nga xam ni fa tabarakallahu andi nga ko muy nuyoo yoo xam ni yaakaar naa mat na lool te matale. Eh, yaakaar naa nag dañuy daal di rek bala ñoo tàbbi ci waxtaan wi ginnaaw nuyoo yi Ibrahim nañ ñu ko mayal mu ñëw toog fii bu ko defee yëkkatil nu tuuti ci bayit yoo xam ne sëñ Moussa Ka daf koo tagg borom Daarul Muxti waaye itam ci làmmiñu sëriñ Samba mu di ko ci royee moom itam day ñëw bu ko defee indil ñu rek li nga xam ne moom mooy wolofal yooyu sëriñ eh, Moussa Ka def ci Cheikh Ibrahima Faty borom Daarul Muxti ndax doy na sëkk rek njàmbaarug soxna si sëñ Mahamadan dana ci ñëw jàmbaar jii mu am fi daarul moxti muy Thierno Ibrahima Fati mi ci péncum boppam mbokk yi fii may wax ak yéen noo ngi fii ci kër borom daarul moxti gi nga xam ni saal bi ñu defee plateau bi doyoon na sëkk ñu ni ak njaboot am nañu ko fi te am ko ci barke borom daarul moxti kii ci sama ginnaaw kenn ubbiwu ko ca topp di kër baay seex ga kenn ubbiwu ko kon liggéeyu borom daarul moxti kenn ku ne xam na ni dooy na sëkk ci bu ñu ko tuddee rek xam ni soxna Fadi sa Jóob jàmbaar la yàlla na ko yàlla doole fayal sëñ Ibrahima nga ubbil ñu ci ay abyaat yu gàtt ñu doog dem nag ci biir waxtaan wi ak boroom xam-xam yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم jooy maam Cerno Ibrahima weer a ngi jooy laylan ba daa bayima ca mooma at sun weeru koor jooy na filewun keroog nda taw ba soom na ma jooy fi saanda ma lisan jon daaru ca alsasin ay yàlla kawaaru mboolem ku mus di ab sëriñ ci réew mi mbaa nga am njariñ Mbàkke nga jaar ba dib ba kooki kër njagañ sa ndax diina daa yàgg ci ñoom lislaam itam yàgg ca ñoom ba yàlla jaarele fa ñoom mbër ma ñu naa faati mu jaari kooki fekk mbaax fi Mbàkke baari toog ni faax ba am fa mbër muy xotti baax mu tudd njool faati sa ndax jaamu woon na ab sangam sëriñ Mamoor sangam ba yàlla jox ko ab cëram jaaraama maam Faati Isa ba yàlla yi seddale cëram bu rëy ba foofale fa seex Momar la sedde maam Faati mu teggi cër bu dootu jeex ba Cerno Ibra Faati ba xéewala mi dootu jeex jaaraama maam Faati Isa rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun على المرسلين والحمد لله رب العالمين xam naa loolu dañu koy tàmbalee waaye da nga dellu si waat ci biir waxtaan wi sëñ boo nag mooy génn ku ne sëñëboo dafa yor ay produit yoo xam ne moom day jékki-jékki rek génn kenn waaye yaakaar naa xel yëpp dellu na ci ki nga xam ne mooy sëñ Samba Wade fekke naa ci teewaayu sëñ Mamadou mi bi nga ko jàng jàngee ci kanamu Serigne Bassirou dafa wax ni lii na nga ko def ab cassette te ma ko kon nag la sëñ Paate Jàng waxoon sëñ Basiru rek sëriñ Basiru moo ma ni woon dinaa xamal ña fi ne woon sëriñ bu baax ba ba fi ne woon ba ñëpp xam ni kooki kenn la kon nag jàpp naa ni loolu incha allahu rabbi danañ ci yegg te sëñ Abo dégg na ko sëñ Mamadan dañuy fas yéenee dugg rek fii waykat bi daanelee mooy kan mooy soxna Faty Isseu Diop ak kii ko yàlla baaxee fayee ko ko ba nga xam ni liggéey yëpp rafet na waaye ku xool liggéeyub soxna si xool jëmmi borom daaru moxti da xam ne yàlla fay na euh, ki nga xam ne mooy soxna Fadi Si Diop waaye fay na boroom daarul moxti loo ñu ciy indil ci li nga xam ni jigéen ñëpp mën nañu cee roy mën nañu cee dellu ci roy royukaay bu mag ba muy soxna Fadi Si Diop. barakallahu sëñ Moustapha mu mel ni jataay bi li ñuy wax mooy lu ci bari tënk na boppam ba noppi ndax ki ñuy waxtaane ak fi ñu koy waxtaane soo xoolee jataay bi ak milieu bi ñu nekk su fekkoonte ne lu ñuy wane ci image kese la wax ji du ko jar ndax jëmm ji day wane boppam soxna Faty Issa jigéen la joo xamante ne Serigne Mor Anta lii moo ko tànnalul boppam mu bokk ak soxna jaara menn maam sëriñ Ousmane ñoom ñiy nettali histoire dañ koy wax ay yoon yoon waaye fi nga ci yem rek mooy ci Ahmadou soxna bu sa ndax day doy sëkk ndax boo ne Faati Isa ab sa Mbàkke Ahmadou soxna Busa nga ne maam jaara ne astawaalo ni Ahmadou soxna Busa kon mu mel ni borom dëkk bi ñu nekk ci dëkkam bi moo sëriñ Touba ñoo bokk ndey ak baay ndax ñoo bokk wenn waajur di Serigne Mor Anta Sali seen ñaari waajur yu jigéen yi bokkaat menn maam di soxna Ahmadou Soxna Bousso te li ci sëñ morant Anta Sali def alquran moo ñu ko njëkkoon a digal Serigne Mamadou Awa Balla mii daf daan am alquran joo xam ne daf ko daan tekkee tekkiin wu yomb wal baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu ni isni yi walla si xabusu laa illaa ilaa nakidan daf ko daan tekkee nu yomb suñ mu daa bàll daf daan wax ne soo bàyyee ba nawet nga jël gàncax nga jël aw jiwu nga yóbbu ko ci ginnaaw kër ga fa ñuy tuur mbalit ma nga ji ko fa bu tawee dana naat lool waaye bu meññeent jotee ba góob jot boo demee doo fekk dara waaye soo jëlee jiw bu baax dem ba ca tool ba nga def ca sa tos wala nga def ca sa engrais fab jiwu bu baax wa ji bu góob jotee da nga góob ngóob mu rafet mu mel ni kon suñu Mor Anta li loolu la def dafa wut gàncax gu baax ji ba tax borom daaru mën a meññ ci njiit loolee ba mu ca meññee mu def ci ay kiimtaan yu doy waar ndax koo xamante ne mi ngi gane ganeegul àdduna waaye juram ne la jigéen sàngamkat mi ngi toll béréb sàngam waaye bis bu amee doom li ngay sàkku te di ko wut jant bu ko ko yàlla mayee listixaar gi may def pour won la li ngay woote lan la maa ngi koy def ci xale boobu su xale bi juddoo di góor li nga bëgg lépp da nga ko am su juddoo di jigéen woote bi baye boo nga yamale ko ci sa bopp ak say bokk te bañ koo soril ndax du dem fenn kon mu mel ni borom daaru buñ koy wax ak listixaar la ci sëñ Tuubaa ndax su gane woon jamono doon jigéen kon yoonu murit wi nuy woote tey foofa la doon yam waaye bi mu ganee jamono doon góor sëriñ Touba jëfandikoo ci lim ci jëfandikoo lépp dafay gudd duñ ci jaar te soxna si mooy li ñu li ñu bëgg a wax mooy lan soxna soosu nga xam ne moo meññi kooku ñu defoon listixaar googu ay moroomi soxnaa ma nga fa woon ñu bari ci biir kër ga nekk fa nañ fa doon nekke di fa wut yàlla te di fa liggéey waaye listixaar gi ñu doon listixaaral Sëñ Tuubaa yàlla nga ko jaarale ci soxna Faatisa te soxna Faati sa li ko ko may Serigne Ousmane ñoom danañ ci jaar du jar ñu ciy jaar ndax day guddal ba mu ëpp waaye ku ne xam na ne keroog bi nga xamante ne sëñ Mor Anta li mi ngi dem di ko sàkko ji ay jafe-jafe yu metti am na ba li wolof yi tuddee gàcce sax demoon nañ ba yaakaar ne gàcce googu mën na ci am ndax foo xam ne gis nga fa jigéen ju sell joo bëgg nga dem fa di ko wuti ay bokkam ne la xamuñu la dàq la nga dellu li ñuy wax ci dàq léegi ñu dàq la nga dellu gis fa maneen mbokk moo xamante ne doomam ju jigéen ñépp ko bëggoon ci jamono yooye mu mën a sacrifier doomam ngir jox la ko nga dem ba di ko wuti la nga ca doon def réer ci àll bi loolu it beneen coono bu mettee métti la kon yooyu yëpp daje na ci soxna Faati laata muy ñëw ci sëñ Mor Anta waaye bi mu dajee ci moom ba mu ñëw ci nag ba ñëw ci ci la sëñ Mor Anta Sali a xam ne nag loolee mu doon wax muy gàncax gu baax googee mu bëggoon bis ni ki tey am na ko xam ne ni kii bu ci jiyee bu ëllëgee dana meññi loo xamante ne li mu bëgg a taxaw dana am ko ko taxawal ba dégg nga ci biir histoire bi dañ koy nettali keroog bi nga xamante ne sëriñ bi juddu na ba gane jamono ba sëriñ bi def ci moom li mu bëgg a def ci moom tàmbali di ko jàngal alxuraan di ko yar di ko tarbiya ba bis bi nga xamante ne sëriñ bi natt na ko ba xam ndax sëriñ bi li mu bëgg a wuti su demee ba teg ci loxoom ndax dana ko mën a am wala du ko mën a am te mu yabal borom daaru mu dem yalwaani yàlla dogal mu jaar ci béréb boo xamante ne ci jamono yooyu soppi nañ yenn jël ba mu indi yalwaan joo xam ne yalwaan ju ju ju neex la juñ mën a lekk te sëriñ bi wax ko ne ko kër buur yi tere woon naa la ko nee naa la woon bu fa yalwaan ndax li ñuy lekk mayaal la te réew te daganul waxoon naa la ngay dem ci kër ñi nga xamante ne ñu ñàkk lañ nga di fa yalwaan di ko andi te borom daaru wax ko ne ko la nga ma digaloon day wàññiwuma ci dara am na ñu ne bis boobu la sëriñ bi mas a yëkkati loxoom ndax yëkkati loxoom gi donga bu ñuy dóor la wala donga bu ñuy yar la wala nit ku ñuy teste la ba xam lim ko bëgg a jox ëllëg mat na wala matut kon ñun dañoo gëm ne sëriñ bi daf ko doon testé ba xam ba xam su ko joxee lii dana ko àttan wala du ko àttan bi mu ko waxee nga seen tontu li ko xale bi tontu muy ni ma la bëgge ni ma la fonke ni ma la yaakaare ak ni ma la doyloo ak ni ma wóoloo aw ma kudul yow waaye fen nag mënoo ma ko tax a def ci àdduna nee nañ keroog la sëñ Tuubaa door a xam ne nag liggéey bi mu war a liggéey jant bu ko yanoo dana am ku taxaw ku ko mën a remplacer koo xamante ne bu delsee dara du fi yàqu taxawaay boobu dana dëgër nee nañ keroog sëriñ bi bég na mbég moo xamante ne ba berndeel borom daaru bernde joo xamante sax nee nañ keroog jox na ko mu njëkk a lekk ba noppi sëriñ bi door a lekk ci ndab li kon taxawaay boobu mooy taxawaayu xale boobu nga xamante ne moom la sëñ Mor Anta Sali jëloon waay juróom bu jigéen te doon ci jëmbat loola wayjur wu jigéen wii nag kon ginnaaw dafa taxaw taxawaay bu mel noonu dañoo war a mën a wut ku ñu koy méngaleel ki ñu koy méngaleel mooy kan mën nañ cee jël ñaar wala ñu jël ci kenn mën nañ cee jël xadijatu bintu xuwaylidin nga xamante ne soxna su yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam la woon man soxna Faati Si su ma koy jàngat soxna xadija mooy teew ci sama kanam te danañ joxe misaal li tax ñu koy méngale ak soxna Khadija soxna Khadija yonent bi dafa ñëw sallallahu taala alayhi wa sallama doon koo xamante ne dafa jóge ci béréb boo xamante ne la ñu waxoon sëñ Mor Anta Sali mën nañ ko waxaat yonent bi mooy keroog ba mu demee kokki di wuti tañ na ko xamuñu la bañuñu la defuñu la dara waaye nag dañ laa xamut ndax sant yii mii neesu ko du caagéenu sant wi dafa dañ koo xamul waaye ñu ko dëgg-dëgg nañ ko war a miine dëgg-dëgg ndax sant wi ma nga déparé fu sori ca ca ca fuuta ñëw bu agsi fii mm-hmm. ñu ne ko sant wi xamuñu ko léegi loolu ñu doon jàngat ci moom yonte bi sallallahu alayhi wa loolu lañ doon jàngat ci soxna Xadija ci moom soxna Xadija yàlla dogal muy jigéen ju nangoo liggéey mm-hmm. di jigéen ju jub di jigéen ju rafet waaye ji jigéen ju am juddu bu baax te bu leen fàtte ne yonente bi sallallahu taala alayhi moo ñu waxoon ne denc leen jigéen ci ñeent li jamaaliha wali maaliha wali nasabiha wali diineha mu ne nag tànnal naa leen jël leen diine ji yonente bi moo ne denc leen jigéen ci bu jigéen ju am alal baax na jigéen ju am judd bu rafet baax na jigéen ju am askan wu rafet baax na waaye jigéen ju am diine baax na yonente bi nag tànn leen jigéen ju am nga gis na ñeenti melokaan yii ma tudd yëpp dafa nekkoon ci soxna Faati Isa soxna Faati Isa xale la woon jigéen ju rafet la woon yoo xam ne kokki yëpp ko bëggoon ci jamono yooyu waaye jigéen ju amoon alal la ndax ay bokkam dañoo amoon alal ñu riis lañu woon ba soxna Faati kenn ku ci nekk xam na ne bi muy ñëw ci kër sëñ Mor Anta li gis nañ li mu ëndaale ndax dana feeñ ci biir waxtaan wi bokk na ci bi fi sëriñ bi nekkee la soxna Xadija doon def soxna Faati Isa moo ko doon def moo doon financé sëñ bi àgg na ci sax ba sëriñ bi ci boppam bu bëggee takk soxna soxna Faati mooy génne ci alalam ñu def ko ak can jox ko sëñ bi kon kooku ku yor alal la woon mm-hmm. waaye jigéen ju rafetoon la ju kokki gépp bëggoon waaye jigéen ju rafetoon ab juddu la ndax ku xam kokki xam ne kuy rafet ab juddu wala nga daan tànn soxna bu njëkk danga fa dem boo demee ci tund wi yëpp boo demee ci tiijaan yi boo demee ci laayeen yi boo demee ci morid yi askan woo fa juddoo yëpp boo ko xoolee askan woo ci tëgg dana ñibbi kokki ñu ñuy sant ak sant wu man di doon boo ko xoolee rek jàmbar ko dana ñibbi tokki kokki waaye ñu am diine lañu woon it ndax bokk nañ ci université ya fa nekkoon nga xam ne dañ daan jàngale diine di jàngale alquran di jàngale lépp kon kokki ñeent yooyu ñu wax ci soxna xadijee yëpp amoon na nga gis soxna xadijee it bi yonente bi sallallahu taala alayhi wa ñëwee melokaan wi mu wone muy joxe alalam joxe boppam joxe aw askanam ndax toujours dama ko ciy misaal ne mën nañ koo jàngale ci soxna Faati Ise mooy soxna Xadija bi mu ñëwee bi ci ëpp solo mooy bi nga xamante ne jàngat na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yan jikko la yor laaj ko ñi muy àndal laaj ko ñi ñi koy toppatoo laaj ko ñëpp ba xam kii jikko yi mu yor yu mu doon mu door ko tànnal boppam bi mu ko tànnalee boppam ba noppi nag ci la ko jox alalam jox ko ab taaram jox ko léppam ba ci histoire bu gàtt gis ngeen bi nga xamante ne yonte bi dem na ci xunti mi te ñëw te dellusiwaat bi mu ñëwee tey wax sàmmiloo nii dasiroo nii muur leen ma sàng leen ma ndax jaaxle naa ñu gis baat bi ko xamante ne moom la ko soxna Xadi ji njëkk a wax muy dellusiwaatal indiwaat moraalam parce nit dana toll ci jaaxle boo xamante ne li koy gën a dimbale dëgg-dëgg du nga jox ko alal li koy dimbale dëgg-dëgg du nga wax ko yaay kan waaye li koy dimbale dëgg-dëgg mooy nga jéem a delloo si xelam ba noppi ba mu dal ba toog bi mu agsee lu mu ko njëkk a wax yow de yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gis naa ne doo alku mukk ci àdduna ndax yaay nit ki gën ci nit ñi yaay nit ki gën ci sa njaboot ku mel noonu nag yàlla du ko seetaan mukk muy alku waaye gis nga la mu def li mu def mooy dafa daal di wut ku ko ëpp xam-xam ca loola ne ko jàngatal ma kii mu gis lu mu doon lu am solo la bokk yi demul ci ab jabar di takkaate jëmul ne sama wujju sàngam demul ne nàngam waaye daf ne xoolal ma kii li mu gis lan la ndax lu tege ci yoon la wala lu nit def la wala lu jaar ciy loxo la bi mu ko xoolelee ba gis li mu njëkk a def mooy li ñuy wax mooy delloo siwaat xelu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax gis nga méthode bi mu njëkk a jëfandikoo bi mu ñëwee ba toog ak moom cib néeg ñoom ñaar képp ñu toog cib néeg eh, soxna Xadija dafa mel ni am na lu génn ci kawaram lañu wax wala ñu ne am na lu génn ci ci tànkam loo xamante ne ci yaramam la bokk te malaaka kenn ku ci nekk gis na ne du gis du gis loolu bi mu ko gisee la gis ne kii dafa dal nekkaan nit maanaam nekk jëmm joo xamante ne li mu doon gis lépp daa mel ni daa jékki jeex tàkk bi mu delloowaatee aw yaramam ni meloon mu gisaat na yonent bi delsiwaat na melaat na meloon bu njëkk mu xam ne kon kii gisul junne gisul dara waaye malaaka la gis kon malaaka mi nga xamante ne moo daan moo daan indil yonent yu baax moo ko indilaat lu baax mu sàmm ko ci noonu waaye loolu ngay gis noonu méthode boobu li tax mu am solo li tax ñu di ko nettali nga gis ne même méthode boobu même la soxna Faati Isa jëfandikoo mm. ndax keroog bi ñu nekkee te tubaab yi bind ab leetar yónnee ko fii yónnee ko borom daaru ci daarul manaan ne ko sëriñ bi génn na àdduna dundatul ñu gis méthode bi soxna Faati Ise jëfandikoo waat mooy dafa indiwaatal nit ñi seen moral yëpp indiwaat seen xel yëpp indiwaat seenug dal ba nit ñi xamaat fu ñuy teg seen tànk mm-hmm. histoire boobu sax bi ko jiitu bu mat lu bul sifaa yi moo ko jiitu ndax bu mat lubul sifaay yi neen sëñ bi dafa feebar ba nga xamante ne mënta bind loxoom sax mën a tuta bind nga xam ne ki ko doon bindal mat bul sifaay yi da ko woo mu toog ci wetam sëriñ bi di ko wax muy bind wasta ba bi muy agsi ci wastak yi ilayhima na darar xat masani atta arani muxtadar nga xam ne booba feebar bi mën nañ ne sax daanaka sukuraat la waaye bi mu wooloo soxna si ba ne ko nañ ma defal laaxum ngurbaan ñu def soxna si toggal ko ko ba mu ñëw bi dikkee soxna si bi mu toogee ci wetam nee nañ li mu ko njëkk a wax nee na def na ko dafa dafa jël loxoom teg ko ci mbaggam mel ni ku ko fëgg mel ni ku ko yee ne ko jógal lekk ci laax bi daan ne ko yow de sa xel war naa dal ndax yow de ni nga baaxe ak ni nga jube ak ni nga tege ci yoon war ngaa xam ne dara du la dal nee nañ soxna Fatou Cissé loolu la ko wax ni nga baaxee ak ni nga jube ak ni nga dale war ngaa xam ne dara du la dal nga xam ne foofu rek maanaam moralu sëñ bi dafa dafa dafa génnaat dafa yëkkatikuwaat parce que nit ki bu feebaree léeg-léeg nga fekk ko ci jataay boo xam ne da nga ko wax benn baat boo xam ne rek dana dalalum xelam benn nga fàttali ko ne ko sëñ diw nee na moo nangam ci yow wala nee na moo nangam wala sëñ wala nangam dangay ngay gis xelum nit ki ni muy dellusiwaatee ndax feebar léeg-léeg dafay nekk ci xel nga gis ne soxna Faati Isa loolu la wax bi mu ko waxee sëriñ bi lekk ci laax bi bi mu lekkee dafa jóg féex ànd ak dal mel ni dara jotatu ko mm-hmm. mu door koo laaj yam koy laaj ne ko loo ci bëgg soxna si wax ko la mu ci bëgg dana ñëw ci biir bu ñuy wax soxna si ci taxawaayam ci ak murit saadix ak ni mu nekke ab murit saadix taxawaay boobu mu taxawoon keroog bi mu koy toggale laax bi dana ci feeñ waaye na soxna Xadija defoo it bi bi ñu bindee leetar tubaab yi tubaab bi bindi leetar ne ko sëriñ bi jóge na fi te mu gis dugg bi ak génn bi dafa ñëw dalal seenum xel ñoom ñëpp bi mu ñëwee la laaj maam Thierno ne ko lu xew mu mu bañ koo wax la mu ne ko wax ma rek lu xew lu mu doon mu ne ko sëriñ bi de la ñu bind leetar wax ne dafay jóge nekkatu fi soxna Faat ne leen yéen de yéen a may bëgg jaaxal xanaa xamoo ne sa sëriñ bu baax bii feebar na ba mënatut a jóg ma toggal ko ab laax bu jëfandiku ci ba féex ne ma loo bëgg ma ne ko bàmmeel rek laa ragal mu ne ma maa la ciy dugal soxna Faat ne leen moo ne man de maa ngi waxandu maa ngi wax ak yéen ñi te jógee fi te kooku de lu mu la wax dana ko def nga gis te booba tubaab yi li ñu ci jublu woon xam nañ ne sëriñ bi yóbbu fi mais li may wax mooy xelu nit ñi la ñu bëggoon a yàq ba nga xamante ne parce que bari na sëriñ soo xamante ne tàgge nañ leen fii Sénégal ñu yóbbu woon tàgge nañ fii bañ ne faatu ba seen bokk dëjal leen te faatooguñu woon waaye dañoo yàq moralu nit ñi ba seen xel génn ci ba toppatootuñ seen sëriñ boobu ndax gëm nañ li leen tubaab yi wax ñu door leen a téye fay te bañ faatu ñu door leen a suul bari na ci sëriñ suñu jëlee woon Sénégal yoo xam ne am na ci sëriñ soo xam ne bi ñu leen di tàgge Sénégal boobu faatooguñ loolu lañ ci jublu woon booba booba dañoo bëggoon a décourager murid yi ak taalibe yi ba seenum xel ñu tasaare daara yi tas lépp ba booba bu ñu fa jógee ñu xam ne sëñ bi nekkatu fi waaye soxna Faati yi nga gis booba ni mu soowee yoonu murid wépp nga xam ne daf leen a taxaw ci ne kii ngeen di wax kat jógewu fi daal ne borom daaru mën naa la cee jox ay firnde yu leer ndax boo ko sàkkoo gis ci guddi tey gi da ko gis am na mag mu fa tëddoon nee nañ ci bokk bokkoon ci bëkk néeg yi nee na ci guddi gi dégg na sëñ Tuubaa borom daaru ñuy wax ci biir néeg bi te loola firnde ja bokk na ci bi ñu xëyee ci suba gi sëriñ bi dafa génne ab leetar boo xamante ne borom daaru leetar boo xam ne mbind mu tooy xepp a ci nekk nga xam ne da caa bind ñaari tur xonqal ko leetar yi ba léegi mu ngi fii wax ca ne ko diw ak diw ña doon reetaat borom daaru sëriñ Tuubaa wax ca ne leetar xonqal seeni leen diw ak diw nañ ma moytu ndax du ma ñoom te duñ man nga gis kon soxna si taxawaay boobu mu taxaw nga xam ne moom la soxna Xadija taxawoon nga gis kon bi sëriñ Tuubaa di bind mbind mu réy moomu mu bindoon ci te doon wax misaal ab murit nan la mel buñ ci jàngatee dañ ciy gis jikkoy soxna Faati Isa yëpp xam nga sëriñ bi dafa tënkoon ak murit ci tënkaay bu gàtt wax ne sifaatu saadixil muridi bixtisaar arbaxatun nasamtuha fawqa fawqa ixtiraar asidqu fi mahabbati seyxi abad sumam tisaalu amrihi ay su warat wa tarkul ixtiraadi mutlaxan walaw bi baatin alayhi fi ma rawo wa mahahu salabul ixtiyaari li usni sànnihi bila inkaari fa kullu man jammaa haasihi sifaat min al muridina fa yudriku sixaat nga xam ne sëriñ bi ñeent képp lu cité ci ne ku ni mel ab murid saadix nga léegi ñu xool jikko yooyu ci soxna Faati Isa ba xam des na ko ci gis wala duñ ko ci gis ba ci njëkk muy dëggal ci sab sëriñ doyloo ko wóolu ko te yaakaar ko ci lépp te dëggal ci dëggal gu wér loolu buñ ko ci nattee dangay gis soxna Faati Isa ci ca miraasum sëñ Mor Anta Salima ba mu fi jógee bokk yi jigéen la joo xam ne boroom këram jóge na fi mu am ca wàll am ci ay njaboot ay njabootam am ca wàll waaye keroog bi sëñ Tuubaa ñëwee te ne miraas mii de kenn du ci am dara man soxlawuma ci dara lépp nangeen ko miraas te bokk yi loolu daa fee jar di ko leeralal nit ñi bañ xam ko bu baax a baax sëñ Mor Anta Sali ci mujjam ab àttekat la woon ab sëriñ la woon bu am doo ci ak mujjam. Hmm. goo xam ne alal ji dafa bari woon lool. bi mu fi jógee fee bàyyi alal ju bari la fi bàyyi waaye keroog bi sëriñ bi dikkee dafa wax ne duma ci doon ne dara maag Ceerno Ceerno rek doy na ma ak kaamil bi nañ ma bàyyee lool. te li ci des yëpp bokk yi jël ko delloo ko donn ko ñu gis dëggaluk soxna Faati Isa foofu taxawul ne sama cër wala sama cëru doom wala sama cëru kaneen keroog bi suñ Tuubaa waxee loolu keroog ca la fàtte alal ja fàtte ne amoon na alal sax ci soxna ci ci ci sëñ Mor Anta waaye ca la fàtte ne doomam amoon na alal ci sëñ Mor Anta Sali alal ja la bari bari lekkuñu ci dara waxuma la alal ji sox soxna maam Thierno Birahim waaye alal yi mbooleem doom yamu jur yépp sax laaju ci benn dërëm daa bàyyi alal ji lépp nga gisi dëggal googu ci ab sëriñam bi ko sëriñ bi waxee ne ko ne ko maa lay dugal ci bàmmeel maanaam gëm gu wér gi mu ko gëm ak doyloo gi mu ko doyloo nga xam ne dem nañ ba ñi ko yóbbu woon tàgge ne faatu na mu wax leen ne leen sëriñ bi jógewu fi ndax moo may dugal ci bàmmeel te génneeguma ci bàmmeel mm-hmm. kon pas-pas bu dëgër ak dëggal gu dëgër mënut a weesu loolu ndax nit kuy dund mën ngaa sikki sàkka te tubaab yi mësu yóbbu kenn ku delloosi kuñ delloosi waaye moom bi ñu ko yóbboo ba mu dem ci la gën a gëm ne la ko sëñ Tuubaa waxoon mooy def ko ci bàmmeel dana ko def ci bàmmeel te sëñ bi jógee gu fi waaye dëggal gi it ak wóolu ak sëriñam gis nañ bi sëriñ bi wooloo di ko woolu ceen muy dem mu wóor ko ne sëriñ bi amutug jot te fu mu dem du fa toog te tubaab yi mën nañoo xëy suba jëlee ko fa yóbbu ko faneen mu wóor ko ne kon moom dem gii muy dem mën naa am su àggee ci bërëb boobee muy àgg sëñ Ousmane dana ko leeral waaye mën naa am bu àggee ci béréb boobee muy àggal man naa am bakkanam fa lay des te bu bakkanam desee fa la koy denc bàyyi ko fa dem waaye ñu gis doyloo gi mu ko doylu ak wóolu gi ko wóolu ba amul la ci dem gi am na mag ñu wax sax ne soxna Fatise ba muy dem lépp luy càng lépp luy lépp luy ay waajtaayam yu nit war a yóbbaale yoo xam ne bu faatoo war na koo yóbbaale lam ci soxla lépp da koo yóbbaale ba muy dem ndax xam na ne bu demee man na faa des. Hmm. kon dëggal ci ab sëriñam gi sëriñ bi waxoon te mooy point bu njëkk bi mooy dëggal kon soxna faa Faati gis na dëggal googu waaye it bañ a nattab leen ndigalul kilifaam maanaam wóolu gi mu wóolu ci ndigalul kilifaam wóor ko ne du juuyanteeg moom ci benn côté boobu it gis nga ko ci dem gi ndax su fekkonte ne amoon na dara lu mu cay wala mu am dara yàqin ju wóoloo di ko ne ci ni lii mën naa am. Hmm. kon dëggal googee mu dëggaloon ci sëriñ bi du am. wala dem ga mën na koo waaj waaj moo xamante ne mën naa waaj ba sëriñ bi fekkaat ko fi te sëriñ bi moom li mu wax faaw dana am kon foofu it ñu gis ne dem ci gi maanaam am yàqin ju mu am yàqin ci ab sëriñam mu wóor ko ne la mu ko waxoon dana ko def moo tax ba muy dem mu yóbbaale lépp luñ koy waajalee ba bu faatoo ñu dencaale ko ko lépp luy ay barkeeloom waaye ñàkk gi nga xamante ne it ñàkk na di ko gaaral dara ab sëriñam mooy bi ñu miraasee ba noppi mënoon na ne ko wàllu suñ maam euh, maam Thierno wala waatu wàllu soxna Faati Mbàkke wala wàllu sëñ daam wala wàllu nangam yooyu yëpp mënoon na koo lijjanti waaye mësu cee jéem a lijjanti dara lu sëriñ bi def ba ci doomam ji nga xamante ne moom la sëñ Tuubaa yoroon muy maam Thierno nga xam ne daf ko daan yónni ci àll bi muy yalwaani bari na ñoo xamante ne seen doom buñ ko gisee ci mbedd mi ñuy yalwaan bu subaa boo muy tudd dellu ca daara ja waaye maam faat nii la ko sëñ nii la ko borom daaru daan rombe di dem di yalwaani di indil sëñ bi mm-hmm. waaye mosu koo laaj mukk lu tax nga yalwaani ak ku lay yanwaaloon ak lu tax nga di ko def maanaam dafa am kóolute gu wér ci keroog ba mu ko yëkkatee teg ko ci loxob sëñ tubaa keroog la ci noppi woon mm-hmm. nga xam ne lijjanteetu lu ko sëñ tubaa def loo bu ko dóoree baax na bu sangoo baax na bu jàngee baax na bu jàngut baax na ba mu ci noppee rek la ci noppeel mm-hmm. nga xam ne kooku kon maanaam doyloo gi mu doyloo woon ab sëriñam ba amul dara lu mu cey lu mu cey kii waaye beneen bi ci desit bi ci mujj mësta ñot di dara lu muy jëmalee ci boppam hmm. daa bàyyee sëñ bi ak léppam bàyyee sëñ bi ak ñëppam bàyyee sëñ bi ak njabootam yëpp mësta xam fu njabootam di dugg mësta xam lu ñuy lijjanti mësta xam lu ñuy def mësta xam lu ñuy toog hmm. nga xam ne doyloo gi mu doyloo sëriñ bi rek boolewu ci lenn waaye daf koo doy doy doy gu sëkk ba mësu cee boole dara mësu cee lijjanti dara daf koo bàyyee ni nga xamante ne noonu ñu lay wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ne ab taalube tey sëñ Touba waxoon ko ne ab taalu bi ci kanamub sëriñam dafa war a mara dafa war a mel nii néew bu ñuy sang du ne ndox mi tàng na du ndox mi dafa sedd du ne nañ ma wëlbatee ndi joor du nañ ma wëlbatee càmmooñ mm-hmm. day bàyyeek ña koy sang ñooy wëlbati fu leen neex ñu jëme ko fa ba mm-hmm. keroog ñu napp ci ñoom mm-hmm. kon soxna Faati Isa tërin wu mel nii la tëraloon ci kanam sëriñam moom la tëraloon ci kanamum kanamum kanam kanamu kilifaam sëñ Mamadou tubaarkalla Mbàkke xam naa ni euh, dañuy dañuy dellu siwaat ci li ci li ci des ndax euh, képp ku teew ci saal bi ak ñu nuy seetaan ñëpp xam nañu ni nag dëgg-dëgg kii di waxtaan peeg na li muy waxtaan te ci dalil yu wéer la ko teg ca yonente bi sallallahu alayhi wa lay jëlee la fa xew indi ko mu méngook li xew ci Serigne Touba Cheikhul Khadim te moom mooy doonay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam noo ngi lay sant bu baax te di la gërëm xam naa foofu nga toll ci la ñuy ñëwaat tuuti dañuy dem ci Serigne Ousmane bu ko defee moom itam tuuti ñu doog a dellusiwaat ci moom sëñ Ousmane dégg nga sëñ Mahamadan fi mu daaneele ci kan mooy soxna Faty Isseu Diop ci dëggal gi ci ñeenti point yi nga xam ne sëriñ bi daf koo teg ni point yi ku ko matal rek mën nañ laa wooyee murid saadix bu dëggal soxna Faty Isseu Diop dajale yépp peeg ko ci jikkoom ju rafet ja ci dëggal ga bañ a dégg-dégg ci jàpp gi mu jàpp sëriñ bi te sëriñ bi leeral na lépp waaye nag soxna Faty Isseu Diop taxawaayam ci wetu sëriñ bi waaye taxawaay taxawaayub Serigne Touba Cheikhul Khadim ci xam gu mu xam ni kii day dafa bokk ci ay waajuram yoo xam ni lu soxna jaaro yéene woon ci moom soxna Faty Sy Diop moo ko def yan sëriñ yan yan fee la sëriñ bi def yoo xam ne wan na àddina bépp ni leen kii sama ndaya yan jëf la sëriñ bi def yoo xam ne wan na àddina bépp ni li soxna Faty Sy Diop am ci sëriñ Tuubaa nag jenn jigéen amu ko ca loolu dañ la ciy déglu Mbàkke Balla nga ñëw teeg ñun dëggale ko waxi sëriñ Mahmadan jii mu doog a jàll ci yeneen borom xam-xam yi. Euh, jërëjëf sëñ Moustapha euh, daanaka bu fekkoon ne yam na foofu rek mu doy sëkk ndax matale na lool nuyu sëñ xaadim yi nga xam ne euh, kuy sonn ci mbirum soxna si la ku ci am taxawaay bu rafet la yaakaar naa ne bari na lu mu ci bind yàlla defal tawfeex bu baax a baax li sëñ Mahmoudan wax tuuti rek ñu dolli ko ci. ngir ñu xam ne kii ñuy fàttaliku muy soxna Faty sa Diop soxna la soo woon soxna la woon soo xam ne yàlla daf ko tànnal ay bokk ay bokk yoo xam ne yu ñu xam ci réew mi la te bu fekkee ne dangay wut soxna wala ngay wut koo xam ne da koy da nga ko fas yéene bàyyee sa sa njaboot ëllëg ngir li nga yor mu man koo téyal man la koo téyal il nga tànn soxna soo xam ne ko tànnulee doon soxna Faati sa nag loolu moo taxoon sëñ Mamour Anta Sali tànn ko andi ko këram moom sëñ Mamour Anta Sali ku daan tànn ñi mi dëkku la ku daan tànn ñi mi dëkku la ba tax na loolu moo ko yóbbu woon kokki bi mu fay demit soxna Faati sa yóbbuwu ko fa woon keneen moo ko fa yóbbu woon waaye yàlla dafa degal ñu joxe ñu fekk ñu joxe kooka bi yàlla dogalee ñu joxe kooka muy soxna Roqiyatu Jóob mu bëgg a dellu ak mbooloo ma mu àndaloon la ko waaye juru soxna Faty sa xamal ne sama ndoom sii matagul a dem kër waaye bu la juboo ñu jox la ko ndax boobu soxna Faty Issa at yi bareegul wax nañu ne sëñ Maam Mor Anta bi muy dem kokki lim yoroon ci lim àndaloon ci ay ak gawar wax na ne jege na jege nañ ñeen fukki jege na ñeen fukki gawar bi muy dem it jàngalu na junni yaasin jàngalu naa lu mat euh, fukki kaamil door a door door a takk dem dem dem kokki bi mu àggee fekk ñu joxe soxna soosu li nga xam ne indaale woon nañ ko ngir buñ ko joxee soxna si ñu def ko ca yàlla dogal loolu wadd fu ñuy wax njaañu njaga mm. bi mu waddee doonte ginnaaw bi jotaat nañ ci ndax bañ wañu ko lañu ko for xam ne gawar bii gawar yi euh, romboon fii ñoo ko waddal lañ leen ko jox waaye bañu dem kokki moom yóbbaale wuñ ko ba ñu àggee ba waxtaan ba juboo ñu xamal ko ne ko euh, euh, lii soxna si euh, bëgg muy soxna Absatu Mbàkke mi nga xam mooy waajur maam Faati li mu bëgg mm-hmm. waa kokki nañ ko ko ñu ñu def mbir mi ba noppi nag di xaar li nga xam ne moom sëñ Mor Anta war a joxe mm-hmm. sëñ Ka mi nga xam ne maamam di jur ndeyam bokkoon na ci ña demoon ca délégation ba mm-hmm. moom lañ dénkoon xaalis boobee yàlla dogal xaalis ba xaalis ba xaalis ba réer donte gisa gisaat nañ ko ginnaaw bi moom yóbbaale wuñ ko bi ñu defee mbir mi ba noppi nag ñu xool-xool gisuñ xaalis bi euh, sëñ du sekk moom mi nga xam ne mooy maam yi sëñ Moussa Ka mm-hmm. moo daal di dikk ci maam sa Mbàkke ndax nañu xam ne maam sa Mbàkke mi jur maam Faati sa mooy jigéen ji di sant Mbàkke ji njëkk a dem kokki mooy jigéen ji sant Mbàkke njëkk dem kokki waaw moo fa njëkk dem ci wàllu ci wàllu ñu euh, euh, nekk fa ñu ñor ko fa moom maam maam ab sa Mbàkke moom bi koo xamal ne ko mbokk mi mbir da koo gaar li nga xam ne indaale woon nañ ko ngir jox ko sa bokk yi kat mel ne dafa ci yoon wi maam dugg ci biir néegam woolu maam maam Ahmadou Seck moomu génne ñetti mbuus yu def xaalis ne ko na ko jox sëñ Morante Sali te bu kenn xam ne maa ko ko jox waaye nag na ko xamal ne ko li ma ci sàkku mooy soxna si ma koy jox yàlla defal ko njaboot gu barkeel ñu door a jël soxna Faati sa jox ko sëñ Mamour Anta Sali nga gis ne waaye jur yàgg naa fàggul doom barke kon barke bii soxna sa Mbàkke fàgguloon na ko njabootu maam Cerno Birahim njëkk lii di xew mm-hmm. sëñ bi door jël soxna si indi ko fi nga xam ne mooy Mbacke Bawal soxna Faati Sey yàgg na Mbacke Bawal ñu jóoru jóge Mbacke Bawal sanc xuru Mbacke mboolem ñam fa nekk loolu ñëpp nag yàlla def ko boole woon ak maam jaara mhm. ndax ñoo tolloo woon ay at te moom moo ko fa jiitu tuuti ndax soxna Anta njaay fa jiitu soxna Faati sa tege ci maam jaara door cee tege mhm. bi nga xam yàlla dogal na loolu yàlla boole leen ñoom ñaar ñuy soq di root di wal daara ji rëy na lool waaye lépp dañ ko an def dañ daan soq di root di wal ba pare seenu la ak seeni farata dawuñ ko sàggane ci biir root googu ñu doon root yàlla na leen a nattu benn bis fii ci xuru Mbàkke soxna jaariyatu la ànd ak soxna Fatisa ñu dem ci teen bi di di di di di di di di di wutal so di wutal euh, Mamour Anta Sali ndox yàlla dogal goj bi tàbbi ci biir ci biir ci biir ci biir teen bi te wax nañu ne booba da ñëw root delloo ca fa ñu koy teg bu keneen ñëwee jëlaat root ñoom nag ñaar gàllankoor na leen fokk ñu yóbbul sëñ bi ndox ba ca dolli kër waaye dëkk bi ñu nar a indi aw mar ndax goj bi tàbbi na ci biir waaye fekk boobu sëñ baa ngi ci ginnaaw soxna si sëñ bi yëngu dal ni leen bu ngeen mu suuturaalee dinaa leen génneel goj bi ngeen root ñu daal koy suuturaal mu génneel leen ko ñu root daal di euh, delloo delloo fañ koy war a teg ñu teg ko fa mm-hmm. biñ dikkee la soxna Faati sa jébbalu ci sëriñ bi booba sëriñ baa ngi ci ginnaaw ak soxna jaara mm-hmm. mën a denc secret lool nag ba mën a denc secretam googu tax na sëñ euh, soxna laa jël léppi sëñ Tuubaa dénk ko maam Faati sa mm-hmm. lépp moo ko daan defal ba tax na bi nga xamante ni maam jaara mi ngi wàcc liggéey booba soxna Faati sa euh, euh, booba sëñ mag bu fukki at la am mm-hmm. maam Cerno Biraay moom gëneegul jamono waaye booba sëñ moom fukki at la am ñu jóge Xuru ci euh, laxas guñ laxasoon ànd ak sëñ Mamour Anta Sali ci xare bi nga xam ne woote woon nañ ko foofee ca ca ca ca Saloum te maam Thierno Birahim nga nee fa jamono. Mm. dox boobee ak coono yooyee moo jàpp soxna jaara ba bu mu àggee tawat dugg ko joo xam ne moo ko moo moo moo ko wàccee ab liggéey waaye tawat ji nag moo ko soxna Fatou sa ñoo daan ànd di am fu ñu ko daan yóbbu foo xam ne fa lañ daan yóbbu soxna jaara mu fa daan mu fa daan faju maam jaara wàccewul liggéey ba demee Poroxaan am na dëkk bu nekk ci wetam foofee la daan ànd ak maam Fatisa ñu fa daan yóbbu soxna si mu fay faju lu mel ne tànk moo ko daan dal yàlla dogal bi ñu àggee soxna si tëdd nii ci kaw maam Fatisa daal di wàcc ab liggéey ci kaw maam Fatisa la wàcc liggéey moom sama jaar laata muy wàcc liggéey nag la ko dénk sëñ mag bi mu wàccee liggéey maam Fatisa daal di wax waa dëkk bi ne leen ñun biñ fi ñëwee yeggul ay sanjaan rek lañ ma bëggoon ngeen dem waxal ma ko waa kër ga wala ngeen ngeen nég ma fi ma dem wax leen ko ñu dem waxal leen ko ñu door a ñëw jël seen soxna si denc ko bañ ko dencee ba noppi nag la la la soxna Faati sa féetewoo mbirum mbirum seexul xaddim xam ne nag seexul xaddim mii maam sa féetewoo bokkut ak seexul xaddim mii ñu xam nii ndax booba mboolem lu ko sëñ bi lu ko soxna Faati sa defar rek sëñ mag bi téewoon na ko lu looleem lu ko soxna Faati sa defal rek boobu sëñ mag bi tiwoon na ko ndax boobu amagul njëbal kenn xamagu ko gëmaguñ ko donte xam nañ ne ku baax la xam nañ ne nitu yàlla la waaye taxul nag mu am ay njëbal ba tax na lu baree bare bu ko bëggee soxna Faati sa lay ñëw soxna Faati sa ci boppam moo koy lijjanti loole ba nam ko bëggee mu amee ko noonu kon soxna Faati sa soxna jaara mooy waajuru seexul xaddim soxna Faati sa léppi seexul xaddim ba ni mu dëgëre ba ni mu woote yoonu murit ba ni mu ko woo yóbboo ci yéen denc ko fa lépp soxna fatis léppi soxna seexul xaddim soxna fatis moo ko amee woon doy na sëkk li sëñ bi nettali lay keroog bi nga xam ne sëñ Mor Anta Sali wàcc na ab liggéey dañ ko doon miraas mm-hmm. ba sëñ bi wax loolee mu wax mbooleem lañ ci am lépp da koo jël jëbbaat ko jëbbalaat ko sëñ Maam Mor Anta ko seexul xaddim seexul xaddim da koo yóbbu da koo jël jox ko jox jox ko naari bi nga xam ne dogal na it moom mu nekkoon ku ku ku bëggoon ay téere ku bëggoon xam-xam ba yàlla dogal euh, am naar boo xam ne euh, ñëwoon na euh, ci sëriñ bi jox ko ñetti téere téere bu ne sëriñ bi wax war ko jox ñetti dërëm benn dërëm muy ñetti dërëm mhm. ñu digee ci bu at mi dellusee bu naar bi wàññi ko sëñ bi daal koy jox ñetti dërëm yi mhm. waaye yàlla dogal na naar bi dem na ba dellusi nga xam ne wax nañu ne euh, bi muy bi muy dellu si sax xëy na yaakaar naa sax fekk na boobu sëriñ bi sëriñ bi jégoo ko ngir wuti loolu waaye dem na ba dellu si ngir sëriñ bi mën koo jox ñetti dërëm yooyu waaye ñetti dërëm yi nekku fa nag mm-hmm. yàlla dogal sëñ bi woo sëñ Massamba Diop Samb ak maam Thierno Birahim ni ko ñëpp xamee ngir ñu wuti ñetti dërëm yooyu ñetti dërëm yi dafa am yoo xam ne da cay nekk loo xam ne des ko war a leeral bu baax a baax ñetti dërëm yi sëñ bi dafa wax ne àggoon na ma ci foo xam ne te loolu njaarim la ko waxee woon bi nga xamee ne ànd naag ma Massamba Diop Samb ak maam Thierno am ngir ñu wuti ñett dërëm yi wër nañ kaa Kajoor ak Bawol ak Njàmbur fu fuñ yaakaar ne bu ñu fa demee am ñetti dërëm yi rek dem nañ fa waaye yàlla dogal na mënuñ ko boobu ñetti dërëm lu jafe la biñ dellisee sax nit ñi dañ leen doon moo tax nga dégg booba booba laaj joore kër Amadou yàlla maam mu ansel nekk patar patar googu lañ jóge woon di wër réew mi ngir ñetti dërëm yooyu biñ dellisewaatee nag mënuñ ko am mm-hmm. wër nañ kajoor wër nañ baba bawal wër njaambur ngir bëgg am ñetti dërëm fay jaambur mm-hmm. waaw waaye bañ dellu si nag amuñ ko nga dégg euh, Moussa Kanaan maam Thierno naan Cheikh Bamba ñu ngi ñuy reetaan naa duñ fay bor bi dinaa ko yalwaan mm-hmm. waaw keroog bañ dikkee mm-hmm. ah, euh, maam sëñ soxna Faati sa dafa foofu maam Thierno Birahim ne ko seen yoon nu mu demee mu nettali ko mu dugg ci biir génne ñetti dërëm dem fekk sëñ bi fa mu toog mu jox ko ko ne ko ñetti dërëm yi sa rek la fi doon xaar sëñ bi daal di siggiwaat bi nga xam ne yàlla na loolu lépp jeex ba sëriñ bi del siwaat njëriñ naar bi dafaa ñëw bi fa bi ñëwee sëñ bi jox ko ñetti junni sëñ ma Samba Diop Samb jox ko fanweer maam Thierno Birame jox ko ñetti téeméer sëñ bi dafa wax ne bor bii de àggoon na foo xam ne ku ma ko fayaloon da nga yem ak maam Thierno Birame maqaama wala maam Cheikh Ibrahima Fall. Mm-hmm. nga xam ne kon maam Faati sa moom moo fayal sëñ ma ñett ñett dërëm yooyu ba tax mu am loolee. kon sonu Faati sa ci ak dëggalam ni ko sëñ bi nettalee hmm. ak mën a fàggum sëñ Mbàkke Anta mooy mooy magi maam Anta hmm. dafa wàcce ab liggéey bi wàccee ab liggéey am soxna sum yoroon du ñuy wax soxna jature hmm. ñu bëgg koo jox sëñ mag bi li daloon waajuram Maam Mor Anta Sali dalaat sëriñ bi li ko daloon mooy Maam Mor Anta Sali yóbbaale wut woon la joxe foofu li dal sëriñ bi moom mooy yàlla dogal na yorul lu mu ca def sëñ bi woo ko muy sëñ Maam Mor moo Sali moom maam Cerno Ibrahima kaamil boo xam ne sëñ bi mag bi moo ko bindoon moom lañu ñu jël jox ko sëñ bi mag bi mu ànd ak maam Cerno Ibrahima ngir ñu jaay kaamil ba bu kaamil bi jaree lañ cee fareekus néew ñu jox ko bokki soxna si waaye yàlla dogal na wër nañ ba dellu mënuñoo jaay kaamil bi ma jàpp ne jamono ji ko yoroon dara ci mbindum sëñ Tuubaa di ko jaay te muy wér mm. da nga ko jaay lu baree bari wër ngir bëgg am nga dégg Moussa Ka sax wax ne hmm. jaay nañu jaay kaamil ba kenn jëndul ko te muy mbindum Cheikh Bamba kenn yëgul ko waaw nga xam dellu siwaat nañ mënuñ mënuñ koo jaay hmm. biñ dellusee hmm. maam Faati sa moo jox ma sëñ mag bi jaagub dugub boo xam ne jaagub ñetti bopp la moom la jox sëriñ bi ñu boole ko ak ay lam yoo xam ne jigéen di ñu wax soxna jee foofu ñu jaaroon ci wetu ndànd moo ko joxoon sëñ bi àddiyee ñu jël soxna soosee jox ko sëñ mag bi moom la njëkk a denc mooy waajuru soxna Fat ja muy soxna ca kon nga gis ne mbooleem foo xam ne mm-hmm. bu fi soxna jaara nekkoon taxaw taxaw ci sëñ Touba rek mm. maam fàtte sa moo fa taxawu sëñ Touba ci fànn yëpp nag mm-hmm. ba lii sëñ bi nettali nga xam ne mm. booba réew mi booba yëf yi doy na waar maanaam boobu tubaab yi dañoo bind lettre bi bind ko arab lettre bi arab lañ ko bind adressé ko Cheikh Sidiya yónnee ko maam Thierno Birahim ndax booba maam Thierno Biraye mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi guy ngura booba sancagul daarul manaam booba mi ngi guy ngura ndax booba sëñ bi dem na xamatu xamaguñ ci moom dara hmm. boobu toog na yoo xam ne xamuñ ci sëñ bi dara tubaab yi xam ne lii maam Thierno Biraye nekkee bu ko bàyyiwul bu sëñ bi dikkee lépp day yokk ndax booba yoon waa ngi dox dara soppikuwul maam Thierno Biraye ni mu war def yépp mi ngi ko def mi ngi jàngale mi ngi mi ngi téye nit ñi mi ngi leen di dundal tubaab yi xam ne kii lii mu nekk bu sëñ bi delsee dafay fekk ay yeneen maam Cerno yu bari ñu ne hmm. léegi liñ ci def mooy nañ tas daara ji niñ koy tase mooy nañ bindi lettre bi jox ko sëñ bi mu jaare ci Cheikh Sidiye ñu indil ko maam Cerno bi am xamale ko sëñ bi mag bu Faatuma bi ñu indee lettre bi ba jox ko sëñ jox ko sëñ maam Mor Jaara mu indil ko maam Cerno Birahim boobu maam Cerno Birahim dëkkul biir Mbàkke boo dikkee ci gaaraasu dakaar bu njëkk bi gaaraasu Dakar bu mujj bi fépp mu nekk ci sow ci penkom tuuti foofu ñaan ay saak saaju côté yi la borom daal foofu la guy nguur a nekkoon foofu la borom daaru moo ci nekkoon hmm. yàlla dogal na bi nga xam ne indi nañ leetar bi jox ko Maamoor Jaara hmm. moo doon seen mag di seen kilifa sëñ Maamoor Jaara jël leetar bi jàng ko yónnee ko maam Ceerno Ibrahima maam Ceerno Ibrahima gontu fa euh, Mbàkke Xewar fe seeti Maamoor Jaara bi mu àggee ñu waxtaan mu dellu siwaat hmm. ci yow gim yow bëggoon naa xam li nit ñiy wax ndax xibaar bi siiw na ndax bu siiwee rek musibaam ndax booba bëgg nañ rek yëf fii tas waaye nañ xam ne booba du du du lu ñuy du lu ñu dajale maanaam booba nekkul ne dañu woo sëñ bu Buso ñëpp ñu dajaloo booba sëñ bu Buso ñëpp kenn ku ne yaa nga fa nga nekkoon di liggéey di jaamu yàlla waaye ñoom liñ ñu bëggoon rek mooy ne xibaar bi tas bu xibaar bi tasee ba ñëpp jot ko rek xam ne sëñ bi nekkatul euh, danañ am liñ bëgg moom loolu lañ bëggoon maam maam Cerno ci geewoo mu ne nag euh, mu mu mu mu ci fi mu nekkoon ci wetu ci wetu Mbàkke dem di fa jullee ji fajar nag ngir bëgg a dégg li nit ñi wax. Mm-hmm. bi mu jullee fajar ba noppi nag lëndëm gi tax na gisuñu maam Thierno ñaar ñi doon wax mooy li sëñ bi doon nettali léegi. kenn ki wax moroom ji ne ko yëg nga xibaar bi keneen ko ne ko mën yëguma ko mu ne ko boo ma neexalee ma wax la ko. mu ne ko lu mu doon mu ne ko sëñ bi lañ wax ne nekkatut te lu mën a nekk la ndax ndax tubaab yi mosuñu yóbbu ko dellu si. kenn ki daal di wax ne waa maam Thierno Birahim lu muy def mu ne ko mu ah, lu muy def xanaa bu demee dem kër sëñ Mamour Diarra bu ko bu ko xëyalee gontul boppam loolu moo naqari woon maam Thierno Birahim waaye maam Thierno Birahim weesu na ñu ne ko sëñ bi nekk fi mu koy gëm loolu moo ko naqari woon bi mu dikkee mu tëju di jàngal xuraan bi mu tëjoo di jàngal xuraan man li ma leen nettali soxna Fatloo mi ko nettali soxna Fatloo moo jur waajur moo jur yaay sëñ sëñ Aydara soxna Safiyatu Jaxate mu yaay sëñ Aydara soxna Safiyatu Jaxate soxna Fadloo moo ko jur soxna Fadloo ñu bari xam nañ ko daaru bi mu faatoo yàggul ko fekk mm. mm. bi a nga xamee ne fëgg na ko mu ubbi mu ne lu mu doon mm. xanaa la nga jële ca pays bi daa neexut mu mu ko mu ne gëm ko mu ne déedéet waaye li nekk ci ma nekkul ci ñii li nekk ci ma nekkul ci xibaar bi tase rek hmm. waaw mu ne ko sëñ bi lañ wax ne nekkul mu ne ko buñ la yàqal sab liggéey demal liggéey sëñ baa ngi dund ndax moom waxoon maa lay dugal ci bàmmeel te maa ngi dund kon kon nga gis maqaamu mu hmm. day li siit si si naa boobu ka sa deex bi yonent bi alayhi salaatu salaam rañaane kii yëfare dina Abubakar nu muy def tey ki genn guddi nga jóge fii dem fii dem fii siwaat waaye bañ ko ko waxee dana leen moo ko wax ñu ne waa mooy dëgg kon kon kon foofu la siit foofu la mm-hmm. foofu la soxna Faati Sa Jóob foofu la soxna Faati Sa Jóob uh, tolloon mm-hmm. dig diggam ak Serigne Touba mm-hmm. muy soxna soo xam ne itam uh, xam nga uh, waajur maanaam li ñuy wax li ñuy wax wujje tamuy tamuy lu lu jigéen ji fonk tamuy te te nit ki bu wujje na wujje ci li nga xam ne moo koy jëriñ ëllëg ma wujje ci lu baax loolu ñu wax ne moom la soxna Anta Ndiaye waxoon moom ba mu ñëwee rek xam ne lii la sëñ bi yàlla defal maam euh, soxna jaariyatulaa ci njabootam gi mm. muy muy muy Seexul Xadim fi sens rek la ko daal di nangul ba loolu mm. moo ko may lii mu am ba mm. tax na euh, ni ko sëñ Mahamada nettali léegi ci ci bi nga xam yàlla dogal na mu war a dem ci yéen mm-hmm. xam nga sëñ mag bi 1902 la ñu mm-hmm. bi mu ñibbisee boobu maam Ceerno Birahim mi ngi daaru manaan mm-hmm. mooy bis bi ñu fàttaliku bisu màggal daaru mooti sëñ bi yónnee sëñ Issa Diène ne ko nañ ma wool maam Thierno Birahim wax nañu ne bi sëñ bi jàkkaarloog maam Thierno Birahim toog nañ ñett man mat fukki minute wala fukki minute ak juróom yoo xam ne maam Thierno waxul sëñ bi waxul dañu xoolante rek ndax booba sëñ bi gën na koo gis ah, maam Thierno gëj na koo gis mhm. waaye ba mu jàngi aslëf ci alxuraan ba sigi daf ne ko ana ana soxna Faati sax mu ne ko mu ngi lay nuyu génne ab sér boo xam ne bu weex la bu sëñ bi dénkoon maam Faati sa maam Faati sa bi soxna jaar wàccee liggéey mbooleem lu mu ci am ci li jigéen di jëfandikoo sëñ bi da koo jox soxna Faati sa benn benn mbalaan mu weex menn mbalaan mu weex la ko jëloon ne ko dencal ma ko dama ko soxla mbalaan mu weex moo xam ne sëñ bi daana gis soxna si di ko muuroo di ci julli mbalaan moom it maam Thierno jugee Darou Man da ko yóbbaaleel màggee sëñ bi daf koo xool ne doxaatal ma ko soxna si mu dencaatal ma ko. mbalaan moomee bi yàlla dogalee sëñ bi jugewaat ci réew mi ba ñëw ba ñëw ba ñëwaat ba ñëwaat euh, darul manaan mm-hmm. lépp soxna saa ngi woon foofu mm-hmm. soxna saa ngi woon mm-hmm. ci la ko sëriñ bi nag euh, tubaab yi yóbbu ci yéen mu mu waajal mu mu waajal soxna si ngir ngir mu fekk si foofu ba muy dem nag dafa yóbbaale dafa yóbbaale mbalaan moomu moom moom moom soxna Faati bi muy dem nga xam ne sëñ bi waru ko catul 1907 ne ko na nga ma nanga ma nanga ma indil soxna si boobu maam Thierno Birahim xam na ne bu soxna si demee du dellu si soxna si boppam xam na it moom bu demee du dellu si moo tax sëñ bind na ko ñaari yoon leetar ba ko ñetteel mm-hmm. la ko sëñ bi waajal muy maam Thierno Birahim boole ko ak sëñ ma Madoun Penda sëñ ma Madoun Penda ak soxna ak ak ak sëñ Matar Samba seen ndey ak soxna Fatou Issa bokk ndey ak baay hmm. am nañ benn koo xam ne ñoo bokk baay te ñoo bokk ndey te bokkuñ baay muy wax Ibrahima Sotou mooy mooy mooy mooy jur hmm. hmm. ci ñi mag ci njaboot sëñ Tuubaa la bokk 1914 la wàcc ci liggéey soxna Fatou rek ko mag ci ci waa kër sëñ moom moo àndoon ak sëñ Modou Penda ngir ñu yóbbu soxna si eh, ci yéen Jolof bi ñu demit yàlla dogal nag mu yóbbaale sir boobu bi nga xam ne moom la ko dénkoon waaye soxna si moom yàggul ci yéen hmm. daanaka man nañ ne fukki fan rek la fa am hmm. ndax mi ngi wàcc liggéey le 27 décembre 1907 hmm. tom tombeek fukki fukki fan ak ñaar ci rakaati gàmm bisub àjjuma ci la soxna si ci la soxna Faati sa wàcc ab liggéey coono bi ko jàppoon mooy gileem gi ñu ko yeboon ak tàngaayu ci yéen ak yooyu ko jàpp bi mu agsee dafa siburu ñu teg ci ab ñetti fan rek mu wàcc liggéey ci fajarug àjjuma gi bi mu wàccee ab liggéey soxna Asu Mbàkke moo ñëw net moo ñëw wax ko sëñ bi ne ko soxna si dafa dafa noppalu sëñ bi dafa daal di woolu sëñ muur mu soir ne ko nañu dem ci sama penku jàkka ji ñu defal ma fa kër daal di woo sëñ am sëtu jaxate ne ko na nga jël kaamil bi xaaj ko jàng benn xaaj bi ma jàng benn xaaj bi te lii sëñ am sëtu jaxate moo ko net li sëñ Omar jaxate mm. sëñ Omar jaxate mi ngi dund sëñ Omar jaxate mi ngi dund neen sëñ am sëtoo ko ko nettali mu te mooy bàyyam mu ne mu nettaliwaat ñu ko mm-hmm. waaw wax am na góor gu sant laam ci ci ci ci ci ci ci daaru minam seen maam la sëñ bi daan def loo yu mel noonu sëñ bi dafa wax ne nañ jël aw nañ jël aw nag jox leen ko ñu defar ko bu bu ñu julli takku saa noppi ñu denc soxna si moo tax nga dégg ñu iñaan ñoo xam dañ naan sëñ bi daa jékki-jékki rek jugee ci jugee ci jugee ci eh, àll bi rek ñëw soxna si yoonu maanaam bi romb romb na foofu romb na foofu mm. woo sëñ Mourou Moussa na ko nag mu wutal fukki nit ak ñaar ñu man alxuraan ñu wàcc kaamil mm. kaamil bi moom moog sëñ moog sëñ am sutu joxati ñoo ko bokk biñ jullee tàkkusaan mu noppi sëñ bi moo gënal boppam ñu indi soxna si mu jullee ko foofu mbaar moom yi ci wetu ci sowu barabu sëñ bi foofu yi moo nekkoon jàkkee sëñ bi la sëñ bi toog jullee ko bi mu dikkee dafa dugg ci biir barab bi bind fi war a soxna soxna si war a tëdd bindu penku bind soow doora woo sëñ Madoun mu dugg ci biir wax nañu ne sëñ Masamba Faati Buso moo leen ñetteel te lii sëñ Madoune Penda moo ko nettali sëñ Matar Samba sëñ Matar Samba demul woon ba seen ndeyee bokk ndey ak baay waaye moo ko nettali sëñ sëñ Matar Samba sëñ Matar Samba nettali ko sëñ Fallou hmm. ndax nee na 1952 la ma daan fekk kër ma Jóob di ma ko nettali. muy jógee Daaru Salaam di ko fekk fee mu doon ko nettali. Hmm. ñu jo ko sëñ bi mu dugal ko ci biir bàmmeel hmm. daal koy denc bi mu ko dencee ba noppi dafa jug tiim barab bi wax ne loolu ñuy wax ndey tey laa koy door ñàkk. daal di moom sëñ mag bi mm-hmm. daal di wax ne kii kii tëdd fii mm. topp ma ci baax topp ma ci aada ma ci toppoon baax dama ko yóbbu deqale ma ci toppoon aada dama ko yóbbu kokki ci bokkam waaye dogalub yàlla laa ci bo laa ci topp ëllëg ay ëllëgati si biir ay njabootam ñoo koy wéetali si njaboot googee ñoo fa nekk de ndax ñaar doom yu jigéen rek la am muy soxna Faati Bintu ak soxna Aminta Mbàkke kii mooy jur nday sëñ eh, sëñ Mbàkke Madina di soxna Aminta mi jur kii kii jur euh, ma sëñ Mourao Balla mu jur sëñ Fall koy genn jabar gi rek ñoo fa nekk mm. mu wëlbati waa defal ko loo xam ne it yombul muy tudde la doom moom rek lañ ma a gis ku sëñ Tuubaa tudde doom waaw mm-hmm. te na sax bu njëkk dañ daan yàq tur wi di wax ay yeneen tur yu bare bari ngir bëgg ngir bëgg ngir ngir xay raam waaye sëñ bi moo ko dégg ci njaareem wax ne bu ko kenn waxati soxna nangam soxna nangam nañ koy wax soxna Jóob Mbàkke ndax bëgguma tur bi sama ndey soxna Faty Sy laa ko tudde waaw waaw loolu bu mag loolu la sëñ bu mag bi wax mm-hmm. mm-hmm. soxna Jóob Mbàkke moom yi moo sëñ laa ñoo bokk ndey mooy seenu taaw mm-hmm. lim dund bariwul lim bari ma fukk ñaar fukki at ak ñaar rek la dund bind na kaamil bi mu faatoo leetar bi sëñ daam bind leetar bi sëñ daam bind di ko yëgal maam Ceerno Birahim leetar boobu mi ngi ay ay ba léegi sëñ daam kam ci njëkk am maam Ceerno Birahim la ko tuddee ka ca mu door koo tuddee sëñ mag bi muy sëñ Cheikh waaw kon soxna Faty Issa man nga ne boo résumé ab dundam daal mm-hmm. dangay gis ne dund gu la fi ñu koy tëjee nga xam ne li sëñ bi wax rek mm-hmm. te te mu ko léegi mm-hmm. borom daaru dafa yónnee sëñ mag bi ñetti dàgga dàgg jooy de fukki sàkki mu boole ko téeméer nag ak ñaar fukk ak lëf ci xaalis sëñ bi wax sëñ Matar Samba ne ko na jaay dugub ji andil ma xaalis bi ñu jaay ko sëf ko ciy gileem andil ko ko sëñ bi toog ba mu yàgg mu ne ko Thierno lii ngay gis ci àddina yàgg sa waa kër añub liggéey soxna Faati Sa waaye sob liggéey xewit ci àddina nga gis nag ñun bañ dalee dund ba léegi ci fi maam Thierno Birahim ni mu yokkoo ak ni mu dolli ko kenn ku ci la nga cee am te lépp nekk ci dunduk soxna Faati Sa liggéey soxna Faati Sa loolu rek doy na sëkk nga xam ne kii jàmbaar la tabarakallahu Mbacke Balla jërëjëf jërëjëf Seydina Ousmane noo ngi amati mbégte bu baax a baax a baax Mbacke Balla yaakaar naa képp ku doon seetaan xam nga ni soxna Faati Sa Diop mooy jàmbaar ji waaye itam dégg nga histoire bu leer boo xam ni la sëriñ Saliou Mbacké mu baax ma daan wax ni nit duma ma jàpp la ma dégg ci moom te bàyyi li ma gis ci moom soxna Fadi Sa Diop nii mu ko waxee ni ki ma ko nettali sëñ Amsatu Jaxate ko nettali te ki ma ko nettalee ngi dund looloo gën a wérub téere nañ jàpp ci loolu menn moom la sëriñ bi tuddee kenn ci ak njabootam moom rekk ko am menn moom la sëriñ bi nangu ci biir bàmmeel moom rekk ko am menn moom itam la sëriñ bi wax ni fii ma ko def seetuma ci baax seetuma ci aada waaye nit foo ko def ak njabootam danañ ko fa fekk kon mbokk yi ñun ñëpp ñu maase waajal nag samedi 13 janvier ci atum mille 2024 mooy màggalu Ceyeen Jolof di bis bi ñuy fàttaliku ak a ñaanal sëriñ Fallou sa jéey ci Ceyeen Jolof kon nag képp kuy ab murit ñu lay tudd di tudd sëriñ Touba war ngaa delloo njukkal sëriñ Touba Cheikhul Khadim war a barkeelu ci soxna si nag fa sëriñ fekk njabootu sëriñ Fallou sa jéy ca Thièyène Jolof incha allahu rabbi euh, sama technicien mi ngi may wax ni ma waxtu yu bariwul li ci des moo tax damay def directement ci sëriñ Xaadim Mbàkke moom sëriñ Abbas bu ko defee mu boole li sëñ Mahmadan jot ñoo indil ak li li ñu sëñ Ousmane indil mu def ci ay taxaw seetlu waaye indil ñu moom itam jàngatam ak seetloom ak lim ñu mën a baaxee ci soxna si soxna Faty Isseu Diop ñu dellu si waat def tour de table kenn ku ci ne yëkkati waat nag ñu doog a tëj jataay bi incha allahu rabbi sëñ Xaadim kaddu gaango Uh, ahousubillahi samihi alalim min alsheytaani irajim bismillahi irahmani irahim wa sallallahu wa sallama ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa ashaabihi wa xadimihi uh, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu te am mbégte lool ci bokk ci liggéey bii nii di wax ne xam naa ne uh, wax ji kawe na lool di tàmbale ci sëñ Mahmadan ni mu ko leerale ndax soxna Faat Isa moom ab murid sadiq la woon ca moom wane na ko ci ñeenti euh, mandarga yi sëñ bi wax na mooy nekk mandarga murid saadix sëñ Ousmane ñëw wa def njàngat moo xamante bi ne doy na sëkk ci loo xamante bi ne maanaam day xamle soxna Faati Isa pour tënk ñoom li ñu wax rek euh, jàpp naa ne kenn ci mag ñi nga xamante bi ne euh, dafa àndoon ak Sëriñ Tuuba Euh, ndax fan yi dama doon damay dama doon bind ab téere ci maam Faat Isa ma bëggoon sax mu noppi balaa màggal gi waaye yàlla dogalu ko ci laa gis benn xasida boo xamante bii ne ku ñu wax sëriñ Mansour Diaw sëriñ Mansour Diaw maanaam mag la ndax mi ngi fi jógee 1920 waaw ci la fi jógee moo jiitu sax sëñ bi ci ci ci ci magi taalibe yi la mag yu mag yi la bokk maanaam yàlla dafa dogaloon nag mu mën a way lool bi mu génnee àdduna sax sëriñ sëñ sëñ Ibrahima Diop almachar yi bindal na ko marsiya sëñ Mat Diop Paxa bindal na ko marsiya loolu day wane rek moom dayo bi mu amoon ci yoonu murit bokk ci mag ñi bokk ci ñi sëñ bi njëkk a seexal sëñ Mansour jaw moomu dafa bind ab xasida di di bind ci Maam Isa di wax bi Maam Isa génnee àdduna maanaam euh, liñ ci mën a jël benn bayit wax ne buñ ko jëloon day tënk daanaka waxtaan wii nii nga mm. xamante bii ne Euh, wax nañ ko mu kawe lool ci biir bayit wi maanaam xasida mi ngi ko tàmbalee ab ab kii wa arju bihi ridan min allahi xala xabibatina xabibati qadimi maanaam mu ngi jooy soxna maam faat isa mi nga xamante bi ne maanaam euh, soppeeb yàlla la woon mm-hmm. di soppeeb tamit maanaam seen soppe ñoom ñëpp mag ñi mm-hmm. ndax sëñ Mansour Diaw fekk na bi ñuy am na xasida sax gu mu bind ci bi ñuy sanc fettoo moom daa fekk lu bëri moo tax mu ne ñun ñëpp dañoo bëggoon soxna Faat Isa mu ne jooy gi koy jooy mi ngi ciy yaakaar tamit ngërëmaane ngërëmul yàlla maanaam ci bayit woowu hmm. am na ci foo xamante bi dafa wax ne hmm. ci biir xasida gi dafa am bayit boo xam dafa wax ne soxna Faat Isa hmm. mu ne karimatu amala daan ne sharifatu nasaba euh, euh, euh, rafiatu rutaba abidatullahi maanaam boo xoolee noonu mu ko misaalee day tënk lii maanaam karimatu amala mu ne maanaam soxna Faati Isa ku sell jëf la maanaam wane nañ ko wax nañ ko ci waxtaan wi jëfam ci wetu sëñ bi maanaam nga xamante bi ni ñu ko waxee sànq dañu wax ne bu ak nubbuwa jàllee mooy nekk ab yonante bu jàllee marta bi bi gën a kawewaat mooy marta gum siddiqiya maanaam ak dëggal mooy mooy marta bi mi tegu ci ak yonante mm-hmm. ca soxna Faati Isa amee woon na ko boo xoolee suñu suñu maam Mariama Bousso suñu maam Mariama mag ma mi jur Isa bi ko yàlla di misaal bi ko yont bi koy alxuraan di misaal darajee siddiqee la ko jox wa ummuhu siddiqee la wax maanaam maanaam yaayam darajee siddiqee la nekkoon ci laalu Aboubacar fi mu ko jëlee mooy riñaan mi bi ne yontu bi saa salaam jóge na Makka dem baytil maqdis jóge fa dem ci yàlla subhaanahu wa taala ñu bëri nga xam ne ay saxaaba la dañ ko doon sikki sàkk loolu nu mën a nekkee maanaam doxub Makka ak Madina ak ak ak ak Jérusalem rek doxub gileem ñetti weer la hmm. maanaam moom mu dem ci guddi gi ñëwaat hmm. jóge fa demaat demaat Baytul Maqdis dem ci yàlla waaye Seydina Aboubacar moom bi bi mu tasee benn nit mu wax ko ko ne ko dégg sa waa ji wax hmm. nee bi demoon na maanaam Jérusalem jóge fa dem ci yàlla ñëwaat fanaan si waat moom dane bu fekkee moo ko wax rek dëgg la de wala amee na leen marta moom siddiqiya maanaam soxna Faat Issa tamit ni ñu ko waxee sànq. Mm-hmm. am na loo xam ne xibaar la boo xamante bii ne ñenn ñi seen xel mi ngi doon jax-jaxi waaye moom comme sëñ bi waxoon na ko mu gëm ne. Mm-hmm. maanaam moom sëñ bi waxam du day loolu maanaam kon ngëm gu dëgër lay wane. Mm-hmm. maanaam foofu la darajaam tolloon moo tax sëñ Mansour Diaw li mu wax ne euh, euh, ne rafiatu rutaba mooy ku am daraja yu kawe la kon daraji jooju mooy daraji gën a kawe bu abinante jàllee mooy siddiqiya soxna Faati mu waxati mi ne sharifatu nasaba hmm. ku tedd aw askan la hmm. ndax buñ gisee ci waxtaan wi gis nañ ne maanaam moom kokki la bokk ak mbàkke ñaari yi foo ko ci toll fenn gi boo ko boo ko boo ko mu dem ci maamaaram geneen gi ti mi ngi ci kokki kon ma nga sëtoo ca mbàkke ak ca kokki aw askanam kenn gënu leen a tekki waaw hmm. kon moom it li mu wax li sëñ Mansour Dia wax ne sharifatu nasaba maanaam ne askan wu baax ci la bokk muy maanaam mbàkke ak kokki kon foofu fu baax la mu waxaat timit ne maanaam maanaam abidatullahi maanaam jaamukatu yàlla la eh. waaye ci biir xasida tamit waxaat leneen loo xamante bi ne dañ koy gis nañ ko ci waxtaan muy muhibbatun lil xadimi lillahi maanaam ku sopp sëriñ Touba la te yàlla rek tax nag maanaam gis nañ loo xamante bi ne ci hmm. miraas mi comme ni ko sëñ Mahmoud daan waxee hmm. maanaam alal ni mu saxee ci nit hmm. nga xam ne tamit sax sëriñ bi def ne mandargay murid sadiq bokk na ci joxe kon sëriñ bi tamit waxee ne maanaam soxna na bàyyi maam Thierno cëram di sëriñ bu mag bi sëriñ bi tim maam di di cëriñu di sëriñ cërub sëriñ maam Thierno eh. maam Faty fekk leen ci loolu ñaare ba tamit yeneen tout tànk yi mu amoon lañ ca lañ ca lañ ca lañ seen wàll ak wàlla moom soxna Faty Issa ba mu ba ko bañ ko jotee pare da ko joxaat sëriñ bu mag bi sëriñ bi boole ko ci addi yam doon yóbbu ca seex Cheikh Sidiya hmm. kon loolu tamit day wane ne ku bëgg hmm. sëriñ Touba la hmm. ci ni mu ko taxawoo ci ay ay ay situation yu bëri kon bayit woowu jàpp naa ne mën na tënk ñoom li ñu wax mooy ne maanaam soxna Faati maanaam ku tedd jëf la mm-hmm. soxna Faati ku sellu askan la mm-hmm. soxna Faati ku am daraja yu kawe la mm-hmm. soxna Faati ab jaamukat yàlla la woon sëñ Mansour Diaw xasida gi maanaam boo xoolee rek ci nga xam kan mooy soxna Faati xasida goo xam ne ca sëñ sëñ Mansour Diaw kilifa la maanaam ci ci mag ñi la bokk waaye xasida gi mu defal soxna Faati si rek jàpp naa ne war nañ koy tekki sax nit ñi di ko di ko wax bu baax a baax arab yu neex ak seede yoo xamante bi ca kii seede day fekke li da dund li muy seede mhm. loolu tax mu am solo mhm. ca lenn lu ci ne lu lu kawe bay wax maanaam maanaam maanaam maanaam ne mosuñu gis ku mel ni moom ci waajuru mel ni moom ci tabe ak ci jub ak jaamu yàlla mhm. waxtaan wi maanaam li am solo rek mooy ñu xam ne comme ni ko sëñ euh, sëñ Ousmane waxee ay ay ay royukaay am nañ ko bu dee ci góor am nañ ko bu dee ci jigéen am nañ ko yoo xamante bi ne jërul ñu koy wuti fenn ñun nag maanaam eh, li ko sëñ sëñ sëñ sëñ Moussa doon waxee maanaam képp koo xamante bi da nga bokk fii nii ci Darou Mouhty maanaam séddale bi yow sooyoo rawatina nag Mame mi nga xamante bi ne maanaam lépp lu ñu wax ne moom la ñuy gis ci fii ci àdduna maanaam liggéeyam rek lay nekk waaye liggéey mm. boroom daaru moom ëllëg lay feeñ leneen la ci topp mooy li nga xamante bi ne maanaam dafa waroon bépp murit rawatina bépp ku dëkk Darou Mouhty mooy toppatoo barab ba toppatoo toppatoo toppatoo bis ba toppatoo soxna Faat Isa loolu sëriñ sëriñ sëriñ sëriñ Fàllu Asa Jeey maanaam wuutu ci maanaam njabootu borom daaru gépp wuutu ci tamit maanaam maanaam maanaam yoonu murit bépp mm. ndax soxna Faat Isa day boobu la am ci yoonu murit mm. ndax bu fekkee ne sëriñ bi dafa wax ne moom la moom bi mu génnee àdduna li ci la jàpp ne dafa ñàkk ndey mm-hmm. te te boo demee ci archive yi ñoom ñoom dañoo bind ne ñoom sax tante la ñu wax tante su maanaam sëñ bu mag bi dafa nelaw mm-hmm. <laughs> trois mois après ñu ne sëñ bu mag bi bind rakkam Ibra Faty da ko kaay jaale ma mm-hmm. te noonu la demee maanaam waajuru soxna maam maam Thierno moo nelaw mm-hmm. sëñ bi denc ko ba ba mars xuma avril mu soor a bind sëñ maam Thierno ko kaay jaale ma sama ndey xam nga loolu kon day te ndeyu soxna Faty ci zahir ndeyu maam Thierno moo génn àdduna sëñ Tuubaa ne ko kaay jaale si kon xam nga loolu maanaam kenn mënu koo xam ni ñu ko mën a déggee sañ-sañ boobu maanaam ci nit waajuram nelaw ba ñett ñeenti weer après nga soo ko yëgal war hmm. a dégg nag kaay jaal si ñëwal jaal si boobu kon ñoom maanaam seenu seenu soxna day day wane rek day soxna faati hmm. kon loolu tamit maanaam ab taxawaay la boo xamante bii ne képp kuy murit képp kuy rawatina njabootu borom daaru amel nañ ko maanaam njukkeel sëriñ Fallou Assi Dieng mi nga mm. xamante ni da caa wuutu ñëpp mm. féetewoo ko mm. di ñaan yàlla mi nga xam moo mën a taxawu mu taxawu njabootam gi nga xamante bi ñoom ñoo koy ñoom yàlla may leen kàttan may leen wér may leen gudd fan la ci seen wayjur amoon maan yéen a jëm ci amoon ñoom ñu àggale ko ci seen sago ba yóbbu ko foo xamante bi ne day day day day day day day kawe loolu njot wasalaamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Xaadim yaakaar naa yàkkamti nan lool téere boobu génn incha allahu rabbi euh, noo ngi lay sant te di la gërëm bu baax te am mbégte lool ci kàddu yi di fàttali mbokk yi nu dab ci biir waxtaan wi ni plateau spécial la boo xam ni dañu koo jagleel jëf ak taxawaay taxawaayub soxna Faty Isseu Diop waaye itam taxawaayub sëriñ Fallou Assa ji mi nga xam ni nag moo ñu wan kan mooy soxna Faty Isseu Diop waaye tax ñu man a barkeelu ca barab ba dañuy joxaat sëñ Mamadan bu mel nañu li ñu joxoon ci waxtu sax sama technicien mi ngi may wax ni ma mat na waaye danañ tëj seen i kàddu bu ko defee laalaale ci jàmbaar ji nag di Serigne Fallou si yi nga xam ne moo ñu wan barab ba wala fi ne nañ ko wal mburu tudd dëkk te kenn ku ci nekk boo jariñoo ci mbir ka tax nga jariñu ci war nga ni ko yow war nga koo sant gërëm ko te mooy kàddu yi nga ubbi rek moom ngay tëjewaat ñu doog ko demaat ci kilifa yi ñu tëj sëñ boo man ñoo tëjal ñu daal di ñaanalante nag waajal bis ba incha allah rabbi waaw barakallahu suñu daa mel ni waxtaan wi liñ ci bëggoon lépp mm-hmm. am nañ ci lu kawe njort sëñ Fallou Assou Dieye nag dañ ciy tëj ci kàddu yu néew rek mm-hmm. dafa am ay ay ay ay ay baat yu ma gis ci alquran ay ndénkaane yu ma gis ci alquran yoo xam ne mm. man ku ma ko tegal ma mën a waat ne lii mooy jikkoy sëñ Fallou Assou Dieye amul dara lu ci yokk amul dara lu ci wàññeeku alquran da ci am ndénkaane yu am solo yoo xamante ne man bi ma ko jàngatee te gëstu ko damaa gis ne sëñ fàllu Asta Dieye laa gis ca loole ndax ndax li tax ma gis ko mooy dama koo dund ànd ak moom ci lu bari gis ko toogi jataayam maanaam diglu waxtaanam ba tax na loola jàngantetaa ko ci moom baat yooyu mooy lan mooy mën nañ cee wax a sukru wala al istiqaama wala rifq walla sabr wala al amaana wala tawadu wala af wala sidq hmm. jikko yi boo ko xoolee ci sëñ Fallou si yëpp da nga ko ci gis te jikko yi yëpp moo ne alxuraan yi ñu ko waxoon hmm. sëñ Fallou si foo ko ma saan gis mi ngi sant foo ma saan gis kenn mësu koo gis muy jàmbar te suñ borom moo ne la in sakartum la azidannakum hmm. ku ma sant ma dolli la waaye ku ko ma sa gis mi ngi sant waaye sëñ Fallou ku ko gis xam ne ci yoon rek la tege woon mës sa jàdd mukk aw yoon ci yoon wi nga xamante ne mooy boole bokk gi mooy boole njaboot gi mooy ñëpp doon benn am yërmande ci ñëpp ku ko gis ci loolu rek la ci la taxawoon te alxuraan moo ñu waxoon nañu fastaqim kama umirta wa man taaba maaka loolu rek la digaloon yonte bi jubal tegal ci yoon rek laa la digal digaluma la neen lu dul loolu waaye fa Fallou ku nooyoon la ñëpp ko ñeme woon bañ nañ ko ba li ñuy wax ci kàddu yu olof kal yi ñuy wax sax ay xeeti wax mu mel ni ay saagaante ay nangam ku ko xamoon xamoon nga ko ci loolu maanaam ku mu gis dana danga nga naan ginnaaw sëñ Fallou si jéy mii di doomi sëñ mu daaw bàll moo ma ñemee wax lu mel nii maanaam da ngay sa bopp ba da ngay ñemee kaf ak moom ku ko gis xam ne nit ku lewat lewoon te alxuraan moo ñu waxoon nañu fa xoolaa fa xoolaa lahu xawlan layyinan laxalahu yatasakkur aw yaxsa kon kenn ku ci xam ne ne ku nooyoon la waaye ku mënoon a muñ la li ceyeen daan metti metti ak lim daan jafe-jafe sëñ Fallou kenn mësu koo dégg mu jàmbat li adduna bi daan jafe yëpp kenn mësu koo dégg mu jàmbat yaa ay ayyuhal lazina amanu wasbiru wasaabiru jooju rek ci la nekkoon mosu cee wàcc ci benn yoon waaye ku amoon kóolute la ci digganteem ak ñëpp maanaam ku wóolu woon ñëpp la ndax fi mu toll alal jum masaan di yor boo dendeek moom mën na la ko jox te du la ko laajaat lu laaj lu tax mu jox la ko te du la ko ci laajaat dara man benn bis bi ma ko mujjee gis ci këram gi fii fekk naa ko fi keroog keroog sëñ Modou sama rakk laa àndal muy bisu màggal ñu fekk ñu siyaare ko ba poos bi fees dell waaye xoolu sax li mu koy jox maanaam daa làmb ci poos bi di de di def ci poosub sëñ Moodu ba mu fees del keroog sax damay dal ci kawam ne ko sëñ bi daa mel ni da ngay parpar loo léegi xanaa da ngaa fàtte sëñ Mahamadan ndax ndax sëñ Moodu jee tax nga xamante ne sëñ bi ku ku ku doylu la woon ci lépp te alquran moo ñu waxoon ne inna allaha yaamurukum an taudul amanati ila ahliha lool rek la jëfandikoo woon waaye ku ku ku ku ku woyefaloon boppam la sëñ Fàllu jëmm ju suufe la woon maanaam li mu amoon doon doomi suñ mu daa balla bokk ci mag ñi eh, bokk ci nit ñi nga xamante ne ci ñi magoon ci daaru ci la bokk ci mag ñi bokkoon ci daaru musi waaye foo ko masaan gis bu agsee fii mën naa wéeru ci suuf mën naa tëdd ci suuf boo ko fekk daaru rahmaan gee mën naa wéeru ci suuf bu ànd ak yow ba dem ci yéen bu demee bala ñu koy laalal dara tëdd tëdd na ci suuf nga xam ne nit ku toroxlu woon la kon wax fit jannaaka la may ne tabaxaka minal mu'minin kon ji ci alxuraan moom rek la jëfandikoo woon mm-hmm. waaye ku daan jéggale la mm-hmm. dawul topp kenn dara topp topp googu nga xam ne daawu ko topp kenn dara Sëriñ Fallu daawul topp kenn dara xolam bu rafet boobu nga xamante ne dañ daan wax ne ku am lu baax moom Sëriñ Fallu dana ko am ku amul lu baax Sëriñ Fallu dana ko am mm-hmm. ndax ñëpp jàmm la leen yéene Sëriñ Fallu yéene wut kenn aw ay ku ne jàmm rek la lay yéene mm-hmm. fa'fu anhum wasfah inna allaha yuhibbul muhsinina mm-hmm. jooju rek la daan jëfandikoo mu des bi ci mujj muy asiq nit ku dëggal la woon maanaam li mu nekkoon suñ Tuubaa boole woon ko ko muy daaru moo tigii nga xam ne fi la ko boole maanaam maanaam maanaam da koo defoon ngëmte ak kóolute gu dëgg goo xamante ne doon taalibu sëñ Tuubaa bu dëgg boo xam ne ku gis sa Baay Faal la dëgg la hmm. ku gis ci doomi borom daaru yi rek wàcce hmm. na sa bopp toroxal ci bopp hmm. yaa ayyuhal lazina amanu taqullaha wa kunu maa saadiqina sadaqallahu al-aziim wa barakallahu rasul allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam jërëjëf Mbakke jërëjëf Cheikh Mamadou Mbakke Balla xol yëpp sedd nañu fi nga ñu tëjalee waxtaan wi nag ci Serigne sa Dieye Mbakke mooy wane ni borom daaru muxti amutum saarit ndax yow sëriñ Fallou mag la ci yow waaye kàddu yi nga yëkkati wax ko ku ñàkk ki ñaan rek ko mën a wax nit dana ko xam itam te te te du am tawféexi man koo wax yal na la yàlla gën a taxawu ñoo ngi sant bu baax ci nja turu njabootu sëñ Fallou gépp di dellowaat ak cant ak i ziyaar ak ñaan ak kilifteef Cheikh Mahamadul Basir bi nga xam ne mooy borom Daarul Muxti bis bii noo ngi koy waajal waaye fii nu ko jàppee ba ni la treize la bu ni woon bu mu am kenn dafa teg seen tànk kon nag Mbàkke noo ngi santaat tey am mbégte loolu sëñ Ousmane dañu lay jox kàddu gi yow itam ni sëñ Mahamadan def rek nga indil ñu kàddu yi tàggatoo yi sëñ Xaadim def noonu oh. sëñ Aboo nag doog ñëw tëjal yaakaar na xanaa di sant sëñ Mahamadan rek waaw jërëjëf Mbàkke ci li mu andi ci sëñ Fallou hmm. tënkal ko ci lu gàtt rek loo xam ne daanaa dégg sëñ bi di ko wax daana wax ne bu ma soxlaa ñaan du ma ñaan sëñ Fallou sama turandoo wala soxna Faati sa wala sëñ mu daw bàll waaye sama xolu bopp lu ma ci ñaan yàlla defal ma ko loolu rafetub xol mënta weesu loolu te li ciy fiir firnde ji mooy keroog bi nga xam ne ab liggéey mat na te mu toog ca mbaar mu mu jàkkaarloog barab bi dafa wax ne fii de lépp loo xam ne bu ma ko fi amee duma ko bokk jaam yàlla yàlla moo ko am kon kooku ku bàyyi woon xel lool la yàlla taw feexele ko lool nag mbirum soxna Faati sa moom daana wax ne ba ma sëñ Maxtaar Sàmba Jóob di wax mbirum soxna faatisa 1952 jàpp 53 jàpp mu woon ne dinaa jug di dox ci mbirum soxna Fatisa waaye yàlla ma ca defal tawfeex ju rëy ci ma jug di dox ak di toppatoo mbirum soxna Fatisa ndax soxna Fatisa bi mu wàccee liggéey 1907 bañ denc ko fa ba sëriñ ba jóge fa 1912 ba 1966 dëkk ba dafa raaf kenn nekku fa dara nekku fa lu dul ab àll xanaa sàmm bi nga xam ne yàlla dogaloon na ni ko sëriñ Xaadim nettali léegi bi sëriñ bi dencee soxna si ba noppi ndax décembre la faatu mu denc ko janvier février mars ba ca weeru meewa la door a bind lettre borom daaru Muxti ngir mu ñëw jaare ko borom daaru bi ñëw yàggu fa waaye dafa siyaare ji barab bi xool ca wetu barab ba kër ga fa nekk te sàmm sa dëkk fa mu dem waxtaan ak ñoom xamal leen ne leen damaa bëggoon ngeen topp tool ma jëmmi barab bee at mu jotit nag daana leen yónnee ab dund ñu de ko topp tool di ko topp tool ba góor gi nga xam ne moo moo moo moom la ko borom daaru moo ti joxoon moo wàcc ab liggéey bi mu wàccee ab liggéey doom jamu daan àndal di ñëw di ko toppatoo moo fa desoon te mooy Abdul Jam moo ñëw ci daarul monti ndax booba àll bi dafa lakk daay gi tàkk ba lakk li wër barab bi yëpp waaye fi soxna si tëdd nag moom laalu ko mu xam ne ki tëdd fi nitu yàlla la mu ne daa gëstu ay bokkam ngir ñu toppatoo ko ndax maa ngi jëm mag te bu ma fi bàyyi ko mën naa réer mm-hmm. yàlla dogal nag mu dem di gëstu di gëstu ba ñu tegtal ko daaru mooti mu ñëw fi ak màggalu Touba 1966 nuyu sëñ Mouraw Balla xamal ko ne ko sa waajur dañ koo denc ci Jolof moom jàppoona ne sax mooy waajuru sëñ Mouraw Balla sama baay nag la moo yoroon barab bi moo ko daan toppatoo sama baay faatu na man maa ngi jëm mag ren nag ak daay tàkk na ba wër ko waaye laalu ko ma bëggoon ngeen ñëw toppatoo ko sëñ Modou na ko ah incha allah bi mu ko ko waxee fekk sëñ Fallou ngi ci wet gi sëñ Fallou na ko ba ma joxee ndigal naa ko toppatoo sëñ Modou na ko ah kon jox nañ ci ndigal waaye nag bu ci teg kenn dara ndax ren kët nawet bi demee na noo xam ne doy na waar te damay bëgg a waaj waajal jumaay daaru ji mhm. sëñ Fallou na ko du ma ci teg kenn dara 1966 ba 2012 lu mu am def na ko fa. ba dëkk ba mel nee mu tey mel nee mu mel tey ànd kook mbokkam ma sëñ Mbàkke Madina mi nga xam ne ñoo bokk soxna Faati Sa sëñ Mbàkke Madina dafa wax dafa wax euh, taalibeem yi ci bi nga xam mi ngi leen fay indi ku ñuy wax Baye Sëñ Guèye nekkoon ci nekkoon na sax chef du bi moom ko nettali leen sëñ Mbàkke Madina daleen dajale ne leen dama leen bëgg yóbbu Jolof moom fekk na ci xolom dégg na ci yéen bëgg ñaan na yàlla yàlla yóbbu ko ci yéen moom Baye Sëñ Guèye mu mu mu mu mu suñ mbàkki madina dajale leen leen dama leen bëgg yóbbu foofa lama leen fa yóbbu nag du bëgg suuf du dara dama bëgg ngeen wetilil ma soxna soo si fa tëdd loolu leen sëñ mbàkki madina wax te sëñ mbàkki madina ndayam soxna aminta loo aminta mbàkki mi ko jur maam faati saa ko jur kon mu ànd ko ak moom ba sëñ mbàkki madina nekkatu fi sëñ falu nekkatu fii ñu ànd ko ak njabootu sëñ mbàkki madina kon soxna faati sa yàlla defal na ko tawfeex jooju sëñ Fallou dem fa wax nañu le du le du juin ndax màggalu Tuuba la waaye dafa wax ne ci cassette bi nga xam ne mi ngi ko doon def ak euh, Moustapha Kamal Fall yàlla ko yàlla yërëm te jégal ko euh, doo ko leer dafa wax ne euh, màggalu daaru lañ mu ko wax waaye daal daal lu may daal di dem nag toogaat naa ba ba bisub gàmm ci gàmm gi nag ci guddi gi laa ne ren ji faaw ma dem tii nee na nag dem ma ci bisu biñ ma gàmm ba suba ga dem moom biñ gàmm ba suba ga dem ma ndax booba coono yi bari na dañoo war a gàmmuwaat te ñi ma war a àndal waxaguma leen ko waaye ci guddi gàmm gi laa xalaat ne faw ma dem ci yéen moom moo tax mu ànd ak sëñ Omar Touré sëñ Cheikh euh, ñu àndal ñun ñëpp euh, ngir dem ngir dem ngir dem seeti barab bañ àggee ñu woo sàmm bi nga xam ne moo ñëwoon ngir ngir ngir ngir ngir wax soxna si ngir wax sëñ bi loolu waaye wax nañu ne bi yàlla dogalee ñu agsi ba tiim barab bi euh, sëñ Mbàkke jam Euh, sëñ Cheikh Sylla Diwaan mi nga xam ne àndoon na ca yoon wa dafa wax sëñ Fallou ne ko sama baay sëñu paate de nee na ma woon borom daaru bi mu fi ñëwee ngir bëggoon bañ euh, barab bi réer bindoon na aw doj bind ci turu soxna si suul ko fi féeteeg bopp bi nañ ko seet nee na koy seet gësuñ ko dañuy def nii rek di wàq ba yem ca biñ ci yemee lañ gis muy mbindum borom daaru wax nañ ne sëñ Mbàkke ko bëggoon borom daaru la dafa dafa jooy ndax gis gis euh, gis mbindum borom daaru ñu xam nga himma dafa am solo dafa jug taxaw ne leen bis ni tey aw naaj aku daay moom do do doxale naa ko euh, soxna si dootu dootu dootu dootu kii te boobu ci yéen jafe ne loolu metti na lool mu jóge fa ñëw jël ak baraab boobu mu def ko fa. baraag boobee seng yi dañ seng yi dañ seng yi dañ ba mu des wenn seng mu jël seng boobu këppaat ko ca ndax la ma wax la ma la ma la ma la ma waxoon dañ. noonu la ko def ba tabax ko tabaxu ban di tabaxu ban ba defaat dindi boobu defaat ci benn ba bii mu mujj def bi mu àggee ba mu toog foofee mm, bañ ci dégg ay fan la wàcc ci ab liggéey sosol ko ay daayira yoo xam ne jege na ci téeméer daayira ak juróom-benn fukk defal ko fa kër goo xam ne téeméeri mètre la wooteel ko fa ab bis kon man jàpp naa ne wàccoon na ak soxna Faty Issa jàpp naa ne bu gisee ak soxna Faty Issa durus jàpp naa ne lim liggéeyal sëñ Touba liggéeyal ko maam Thierno Ibrahima liggéeyal ko islam ci soxna Faty jàpp naa ne bu ko yàlla fayee ñëpp xaj nañ ci kon yàlla ñu ko yàlla fayal doole leeral bu baax a baax a baax ñaanal ñi ko fi nekkal ndax euh, euh, li ko sëñ Mouraw Balla waxoon da sëñ Mouraw Balla dem na ci yéen benn yoon ndax ba fa sëñ Fall demee hmm, ba mu fa demee dafa dikk wax sëñ Mouraw Balla nag dem naa ba gis barab ba sëñ bi ne ko bisub tey bu delsee nañ nañaan dem seeti ko bi ñu àggee euh, ba sëñ mu Mouraw Balla siyaare ba noppi séngi gi ci wetu barab bi fare ko càmmooñ fa la toog mm-hmm. neen naaj wi tàng na jër naat yaa ngi ñu wër ñun tëluñu naat yi naat yi tëluñu ndax tàngoor bi waaye nee na léeg-léeg sëñ Mourou jàpp ci téerab xànjar bi ci ndomba gi ne ko xaa ah, fa li am fii dana am fépp waaye nee na ba moo koy wax booba damaa jàpp ne xëy na day dalal sama xel rek waaye booba ci yéen loolu mënu fa am yaakaar naa tey ku dem ci yéen xam ne la ko waxoon am na kon nag yàlla na ko yàlla fayal dool leeram bu baax a baax ci barkeem jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala aleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf euh, Seydina ngi lay sant bu baax te di la gërëm yow itam sëñ Xaadim euh, ci yow la ñu jëm si yow itam ni sëñ Mahmadan defee Seydina Ousmane defee ko noonu fa tabarakallahu eh, xam naa téere yooyu nga doon wax eh, ci Serigne Mansour Diaw ak sa téere bopp boobu nga doon bind ci soxna si taalibe yi yàkkamti nañ ko lool waaye waxtu wu ñëwee rek dana baax incha allah rabbi ñu jox la nga tàggatoo yow itam ak bokk yi ci plateau bi bu ñu noppee ñu doog a dem sëñ Abo bisimilah. li ñu tëjee rek mooy comme ni nga ko waxee maanaam waxtaan wi moom yaakaar naa ne sëñ Mahamadan ak sëñ Ousmane liñ ci doon def doy na sëkk. dañuy jéem a sof yi kàddu rek ci ci seen i kàddu euh, comme niñ ko ni ma ko waxee sànq rek def naa ne soxna si moom euh, dafa amoon dayu boo xamante bii ne mën naa am ci ci aada ñun ñoo ñoo waa daaru lañ koy jëmalee waaye nag am na dayu boo xam ne ci yoonu murit ak ci lislaam ñëpp ñëpp ñoo ko bokk kon euh, képp ko nga xamante bii ne fekk wuuta nga ca mbooloo ba wootu ci waa Daarul Moxti gépp waa Daarul Moxti gépp ñoo la ameel ñoo la ameel cant ñoo la ñoo la ameel maanaam njukkeel loo xamante bi ne euh, ñoo la ñoo la ko war a ameel te du te du te du te daj mukk mm-hmm. te jàpp naa ne Daarul Moxti bokk na ci ki ñu gën a fonk soxna Faat Isa neewaa na euh, kër doomi borom daaru góodul dem te doo fekk turandoom loolu maanaam ñoom njukkeel lañ koy def ndax xam nañ taxawaayam xam nañ tamit barke bi nga xamante bii ne am na ko ca loolu tamit comme ni ñu ko waxee sànq sëñ Ousmane def naa moo ko doon wax barke moom ñaare maam moo koy fàggul ab sëtam te soxna Astu Mbàkke maanaam bi bi bi bi natt bi xewee mu yëkkati àllam def ca maanaam boobu barke la bëggoon moo tax mu defal loolu suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu maam Mamour Anta Sali mm-hmm. Mamour Anta Sali tamit nekk nit koo xamante bi ne maanaam euh, dañuy faral di yam ci sëñ bu mag beeg ay borom daaroog ay ki waaye soxna Fatim yi ñuy wax xasida gi ma doon wax sànq euh, boo ko jàngee da nga xam ne borom daraja yu kawe la waaye son waaye sëñ Mamour Anta Sall tamit sëñ Touba lu mu gàtt gàtt man gis naa ñetti xasida yoo xam ne sëñ Touba def na ko ci moom yoo xamante bi ne day wane day wane day wane darajaam am na ci foo xamante bi ne dafa wax ne euh, la anta imaamul jili xat foqtaxu maxan bi xilmin saxihin mursidin kulla jahili sëriñ Touba ne yow Mamour Anta Sali Euh, maanaam yow yaay sa sangu waa génération bépp yaay seen sang ci xam-xam bu kawe ak tamit xam-xam bu sell boo xamante bi ne képp ku réer da nga koy gindi ba ci li nga xamante bi ne euh, euh, da ko daan def muy atte sëñ Tuubaa daf dafa wax ne abxaaka dahran xaakiman li ibaadihi li annaka tubdil xaqa min xayri tabdili na ko yàlla na la fi yàlla bàyyi ngay atte jaam ñi ndax yow ci ja ci dëgg rek ngay atte mosoo atte ci lu dul lu dëgg maanaam xasida ga bu ñu ko toppoon noonu la ko sëñ sëñ mag bi di seede ci Mamour Anta euh, kon ñoom mat nañ sëkk liñ mat liñ liñ liñ doon euh, bu fekkee ne euh, nag maanaam comme ni sëñ Moussa ko waxee sëriñ bi moom daa xotti baax waaye ñoom it mat nañ sëkk lañ war a lañ war a lañ lañ war mat ndaxte tey jii soxna Fatim yi ñuy waxtaane maanaam way juróom borom daaru rek doy na sëkk a ci moom bu fekkoon loolu dong la def indi fi ku mel ni ku toll ni borom daaru nga xamante bi ne Euh, moo nekkoon listixaaruk Serigne Touba dañu wax ne bu amutoon maanaam Serigne bi euh, mission mën naa bañ a mat na nam ko bëggee bu fekkoon soxna Fatou loolu dong la ñu defal maanaam wàccoo naa ak ñun waaye nag wutal nañu barke wutal nañu wutal nañu ab sàkk wutal nañu lépp loo nga xamante bi ne euh, nit fu nga di ko di ko ndamoo maanaam defal na ko waa Daarul Muxti mm-hmm. defal na ko tamit aw askanam kon loolu dañ ko war di wane ndaxte niñ ko waxee sànq alxuraan dafa wax ne laxad kaana fi xasasihim ibratun li ulil albaab maanaam bu bi mu daan nettali yonante bi ay yonante yu ko jiitu woon da ko bëgg rek muy roy ci ñoom ndaxte loolu am njàngat la moo xamante bi ne képp ko am xel war nga ci jàngat soxna Faat Is tamit buñ koy wax maanaam ay jikkoom ak melokaanam ñu roy ci du wane ne jigéenu Sénégal wala jax mbaax moom góor ak jigéen ñëpp a war a baax ñëpp am nañ ko baax ku ñu roy liñ koy tëjee comme niñ ko niñ ko defee sànq sëriñ bi wax naa ko sànq sëriñ sëriñ Fallou dafa dafa dafa nekkoon koo xamante bi ne ñun mën naa am eh, ay ay ay gone lañ waaye dafa am loo xamante bi ne def naa ne lu nit gàtt gàtt xel ci moom maanaam xamoon nga ko sëñ daan wax na ko sànq ci jikko yi mu doon wax waaye woyof gi yaakaar naa ne moo gënoon a marqué ñu bari ci moom nit koo xamante bi ne ci wet yëpp mat nga li nga war a doon fees dell ak yàlla waaye nga nga wàcce sa bopp ba tollook nit ñi ba koo gis man di kaf ak moom ak di loolu day wanee ne jikko la joo xamante bii na yàlla sax loolu la wax yoon bi sa salaam maanaam ne ko boo nekkoon ku ku taral say mbir ku naqari deret ñi la wër ñëpp dañuy dem kon waaye nag da ngaa nekk nooy ku neex deret mm. loolu moom jikkoom la joo xamante bii ne ñëpp dañ ko ko doon maanaam boo ko xamee tey xam ko ci moom tey mm-hmm. maanaam mooy ak wayef wàcce boppam ba mën a jaxasoo ñëpp kon bu defee lii ak njabootam tamit jàpp naa ne man ci ñi ma xam daarul maxti jàpp naa ne waa kër sëñ Fallou ñu ñoo ci gën a woyof hmm. yaakaar naa man gisuma ko leen ci gën a woyof kon loolu tamit ci seen waajur lañ ko lañ ko lañ ko lañ ko lañ ko doole kon ñaan yàlla mi nga xamante bi ne maanaam mooy mooy mooy dëgëral ay nit di samp nit ba lépp lu nga xamante bi ne am mission la ndax ñoom it loolu rek la ñuy wéyal maanaam loo xamante bi ne ñun ñëpp la waroon ndax toppatoo soxna Fatou toppatoo ci bis bi ba ci waxtaan wi ñun képp kuy ñëpp koo xamante ni surtout borom daaru nga waroon nga bàyyi say soxla def ko ñoom buñ daggee seen soxla ñu def ko dañ cee wuti ñëpp rek kon ñoom li nga xamante bi ne moo xaw a manqué ci dëkku dëkku africain yi te mooy li ñu wax le sens de l'intérêt général hmm. def loo xamante bi ne da nga ko defal saw askan loolu moo tax Afrique demul bu fa gisee dëkk tubaab bi dem wala dëkk ñeneen ñu dem lépp lu ñuy def day nekk loo xam ni intérêt général lay nekk africain yi Sénégal tamit ci lañ bokk kenn ku li ngay def sa njëriñu bopp ngay def kon Serigne Fallou moom wane na yoon wane na ne def na loo xamante bii ne mbooloo mi la ko defal loo xamante bii ne jikko la joo xamante bii ne jikkoy yaaram la jikkoy sang la jikkoy ku tabe la mm-hmm. Serigne daan wax na ko sànq ci ay jikkoom tabe tabe tabe ci sa jot tabe ci sa daraja tabe ci sa lépp ba def loo xamante bii ne leer na la yow lii askan wi nga ko defal boroom daaru kenn ku ne xam ne bi muy sañ ci 40 kilomètres carrés boppam ak njabootam taxu doon waaye ay génération yu bëri yu doon ñëw a tax kon daal am nañ ay royukaay am nañ ay référence ñoom seen jaan wàcc nañ ñun ñoo ci des li ko alxuraan doon waxee tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat ñoom dem nañ te si la seen jëf rafet na wéy na ñun nag ñoo war a jëf mm. jëf nag bu ñuy wax nit ku rafet maanaam jëf ju rafet roy rek lay lay jariñ ñun ñoo ci war a roy jéem a góorgóorlu ba lépp loo nga xamante bi ne ay ay ay ay ay ay défi yoo xam ne ñoom bàyyi nañ ko fi ñun ñu fexe ko maanaam àggale mm-hmm. loolu yàlla nag mooy kàttanal nit mm-hmm. te uh, yàlla nañu yàlla kàttanal ñoom it yàlla may leen ndam mm-hmm. ci lii nga xamante bi ñu ngi koy def te buñ ko defee ñëpp lañ ko defal wasalaamualeykum wa rahmatullah waaleykum wa mbokk yi mi ngi noonu plateau spécial bi nu jagleel wàccaayu màggalug Céyeen war a doon ni ki gaawu fukki fan ak ñett ci weeru janvier ci atum 2024 ci Céyeen Jolof bokk yi bis baa ngoog njabootu Serigne si jéey gii di ko yëgal mbooleem njabootu cheikhul xaddim gépp mboolem jullit yëpp képp koy sol saw dal te lislaam tax laa jóg ñoo ngi la koy yëgal te di la ko fàttali bu baax euh, ñu mbokk yi noonu bàyyi xel ci Touba TV ngi leen sant di leen gërëm mbokk yi noonu xel ci Lamp Fall TV noo ngi leen di sant di leen gërëm mbokk yi ñu doon bàyyi xel ci Leeral TV noo ngi leen doon sant di leen gërëm waaye mbokk yi ñuy bàyyi xel itam ci Yëgle TV noo ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm xanaa fàttalee incha allahu rabbi le 6 janvier Serigne Mahmadan mi wooteel ki nga xam ni ñun ñëpp amuñu lu dul moom mu Cheikh Mamadou Bassir Anta Niang di ko sant ci kër Alamine Niang noo ngi koy waajal bu baax nii nga ko ànd ak njabootu sëñ Fallou njabootu sëñ Fallou incha allahu rabbi yow it noonu lañ koy ànd ak yow foofee ci kër Alamine Niang noo koy waajal bu baax a baax di am mbégte lool ak sant ak a ziar mboolem njabootu Serigne Fallou sa jiy njabootu sëriñ Fallou nag boo ko waxee mooy njabootu borom Daaru Muxti rek waaye tàggi boo gis mënut ñàkk jàppal diw noo ngi sant ak gërëm alaaji ma Fall Fall nga xam ni day jàmbaar lool ci kër gi bokk ci magi taalibe yi fonk Serigne Fallou lool waaye fonk itam ci yéen lool noo koy ñaanal yàlla sunu borom defal ko tawféex ci taxawaay bu rafet bi muy taxaw Serigne Modou Fall moom itam di kenn ci njabootu Serigne fàllu gi jeex takk ci Serigne Fallou boo demee ci yéen Jolof booy dugg na nit def Ndakaaru ak Ndar ak ci région yi kër yu mel noonu la def ci Ceyeen Jolof sagale ko Serigne Fallou Sadieye yal na yàlla sagal noo ngi sant bu baax te di ko gërëm Serigne Bassirou Sall ca Louga moom itam di kenn ci njabootu Serigne Fallou Ceyeen wala màggalug daaru wala bis yi nga xam ni Serigne Fallou kon moom bu ñëwee noonu la koy ànd ak njabootu Serigne fàllu ànd kook Serigne Abo noo ngi koy sant bu baax tey am lool ci taxawaay bu am solo gi njabootuk alaaji maam Serigne Sall euh, euh, njabootuk alaaji Serigne Sall noo ngi leen di nuyu di leen sant njiitul Serigne Cheikh Bamba Sall ak mboolem njaboot gi ndax ñoom ni ma ko wax njabootu Serigne Fallou rek koo ci tudd mel na ni tudd nga ñëpp nañ daan ànd ak Serigne seen ndijaay noonu la ñu ànd ak Serigne Bassirou mi bis bi ci togg ci ay bernde ci ay xéewal sëriñ Abo mi nga xam ne mooy njiitul waañ ba ak ñi mu ko àndal ñëpp noo ngi am mbégte te leen sant bu baax te di leen gërëm bu baax a baax di am mbégte ci taxawaay fédération Soxna di sa Diop ñu ngi ci biir salle bi njiitul Baye Modou Sall sëñ Modou jee ñoom a ngi nii toog ñoom bu sëriñ Fàll Moussa na nekk ci kër gii ña ak daayire yi ak fédération yi nekk ci wetu soxna sa di yendoo togg di joxe di tabax kër yi jàppale ci sëriñ Fàllu yàlla leen yàlla gën a taxaw bu baax te gën leen sàmm ba seen yéene junaam yépp suñu borom defal leen ci lu kawee kawe seen jot noo ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm mboolem bi Serigne Fallou yëpp lim naa ko sànq bu ma ci tuddee sa sunu waajur Serigne Fallou Touré tuddi ci Baye Samba mel nañu tudd naa ñëpp njabootu Baye Dame Ndiaye ndàngu ñoom ku leen xam xam leen ne Serigne Fallou sa jéy bis bii mën na maa wax ñoom ñëpp ñu ngi ci plateau bi yàlla yàlla gën a taxaw bu baax xam ngeen di seen waajur genn bëgg rek la benn bët la yoroon Serigne fallu la ko xool te yéen itam noonu ngeen def ak njabootu Serigne Fallou yàlla leen yàlla gën a taxaw bu baax a baax euh, Serigne fallu nag bu daan dem ci yéen jolof otoom bari daw bu dawee tuuti ñu taxaw xàll ba oto bi mën a jàll ñu continuer waat yàlla fay na ko tey daayira subulu salaam dépendance gratuite ñoom dañoo wax ni képp koo xam ne jóge nga foo jógee ci réew mii te jëm ci jolof boo paanee danañ la fekk fa nga nekk dépanne la gratuite ngeen mën a jokkoo ak ñoom ci numéro yi di 77 577 77 56 wala 76 836 38 38 wala 77 605 50 94 yàlla fay na Serigne Fallou sa jéey ndax dem Thiéyeen yombul woon waaye tey bu dem yombee nag am na mbokk yoo xam ne jóg nañu taxaw nee nañu dépannage gratuite lépp loo mën a paan dinañ la ko defaral ngir nga mën a yegg ca soxna sa yàlla na ko yàlla sunu borom doole fayal si Abo noo ngi lay santaat bu mbaax Bakke di la gërëm communication Thiéyeen fa tubarakallaahu doo nelaw doo toog doo di nu seetaan mbokk yi nu ciy seetaan lépp loo xam ne jariñ ñu nañ ko ci yal na leen ko yàlla gën a fay njabootu Serigne Fallou te jaare ko ci sa mag ju baax ji li Serigne Mahmadan wax sëñ Basiru bëggul dara xàccoowul dara bàyyee na lépp ki rakkam jiital ci Serigne Abo kon nag Mbàkke euh, sagal nga Serigne Fallou noppal nga mboolem koo xam ne tey jii bu laneen amoon lu dul lii muy bàggante Daaru Rahman ak ci njaboot gi noppal nga sa kilifa yëpp yal na yàlla gën a taxaw Serigne Abo kon euh, kaddu gaa ngi noonu. noo ngi santaat bu baax nag kenn koo xam ni moom bëggul sax ku ko tudd ci télévision da man dama koy tere lu bari waaye faaw ku def lu baax nag danañ la sant muy Serigne Cheikh Lo Demital moom Alaaji Serigne Lo Gallo moom njabootu Serigne Fallou xel wa mu doon daw ci wetu Serigne Fallou bu ko raw lay daw ci wetu Serigne Bassirou mi di ko ànd ak ñoom ñëpp ñoo ngi koy sant te di ko gërëm euh, Ceyeen Jolof ngi noonu alali borom Daaru Moxti la Ceyeen Jolof ngi noonu alali Serigne Touba Cheikhul Khadim la ndax ñaari sëti borom Daaru Moxti ya ñaari sëti soxna Faati Isa Joob ya muy sëriñ Mbàkke Madina ak sëriñ Fallu sa jeey njaboot gépp ñoo booloo tey ànd ak njabootu sëriñ Fallu di màggal bis boobu di samedi fukki fan ak ñett ci weeru janvier ci atum 2024 sëñ Abo say kàddu bëgguñu dara teguwaat ci moo tax doon jàllale loolu rek nga sant mbooloo mi waaye fàttali ñu nag li nga xam ni moom mooy programme bis ba incha allah sëñ Modou Fall moom ñëwoon naa ci xanaa ma ñëwaat ci waaye yaataloon naa ci lool ci taxawaay bi ak na mu def ca ci yéen kàddu gaangoog euh, jërëjëf Cheikh Moustapha Absa jërëjëf eh, ñoo ngi tàmbalee suñuy kàddu ci sant yàlla sunu borom julli ci sangub sang yi sant Serigne Touba wax jërëjëfi Serigne Touba sant it ki waral lii muy maam Thierno Birahim di wax jërëjëfe maam Thierno Birahim ci ndigalul sama kilifa Serigne Basirou moom mi ma dénk liggéey bi ci kàddoom laay waxe kàddu yi nag liñ bëgg a wax lépp wax nañ ko awma ci lenn loo xam ne dinaa ko ci teg daanaka wax ji rek mooy sant rek sant gi nag dañ koy tàmbalee ci ki fi nekkal cheikhul xadim tey cheikhul xadim te mat ko sëkk mu cheikh mun muntaxa di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ba àggale naa la mu rëy yi mu naal ci Touba teg ci ki nga xam ne mooy borom daaru boroom xam-xam bu kawe di jàmbaar di sëñ Cheikh Mamadou Bachir Ibrahim ci taxawaayam ci dëkk bi ci taxawaayam ci liggéeyu maam Thierno waaye nag ci taxawaayam ci njabootu sëñ Fallou Sy Dieye ñaanal ko moom it liggéey bii mu tàmbali te àdduna bépp teg seen bët suñ boroom may ko wér ak gudd fan ba mu àggale ko ba naal yeneen di nuyu ak di sant yit bu baax sëñ Xaadim Mbàkke docteur moom mi xalifab sëñ mu daaw ball mm-hmm. di ko ñaanal yàlla mm-hmm. fii mu toll ak liggéey yii mu tam bëgg a sombi suñ borom bàyyi ko fi ba mu àggale ko jataay bii nag jataay bii nag boo ko gisee ni mu tëddee ñoo maa waxtaan sëriñ Basiir ñu sàkkoo ki nii mm-hmm. ngir wane kan mooy boroom daaru Muxti te ñett ñi doon def waxtaan wi mm. ñëpp waa kër borom daaru lañ boo jëlee sëriñ Mahamadan mm. moom sëriñ Basiru Anta Ñang moom borom daaru nga jël sëñ xaadim moom sëñ abbas moom borom daaru nga jël sëñ Ousmane hmm. moom sëñ Fallou sa Dieye moom sëñ Modaw Ball moom borom daaru ngir wat leen borom daaru fi mu toll woon ci xam-xam ndax kàddu yi ku ci jël kàddu ci ñoom rek doo bëgg mu jeexal te li ñuy wax jëm ci kenn te ku nekk la ngay wax doo laal la sa borom di wax loolu mooy xam-xam te loolu la maam Thierno sañ ci dëkk bi mooy xam-xam jaamu yàlla jub nangoo liggéey te boo gisee ñu jël tey jii ay ndaw yoo xam ne ñu gën a ndawee ci dëkk bi lañ waaye fees dal ak xam-xam def lii ñu def ngir wane liggéeyu borom daal rekk lañ ci jublu waaye lañ ci jub jubloon yépp yàlla defal nañ ko ci sëriñ bi ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ci turu njabootuk sëñ Fàllu képp ak ci turu njabootuk borom daaru mm-hmm. ndax li may faral di wax rek mooy bis bi ñu jublu du bisu sëñ Fallou Seye du bisu sëñ Modaw la waaye bisu maam Thierno Birahim la ku bokk ci maam Thierno Birahim rek li ci sëriñ Basiru mi am rek nga ci am la ma am ca barab ba moom nga fa am ndax kii fi nekkal borom daaru tey su xëyoon ne tëj leen kër ya ca ca yéen jolof tëj barab ba ëddil ma caabi bu ñu ko waxee suba gi mu ngoonee ñu dem def ko ëddil ko kon nag foofu kër borom daaru la waaye lu nekk day am ci lu muy maa mos a dégg sëñ bi ne ma ci ceen gi dama ciy roy sëñ mustafa Bassirou ca Poroxaan ndax kuy roy da roy lu baax damaa bëgg fee sëñ Moustapha Bassirou jaar ak Poroxaan ba mag si fii ma jaar faak soxna Faati ba mag si fii loolee mu ci bëggoon nag te yàlla defal nag ko ci ba tey jii rek ci liggéey ba ñuy liggéey te du jeex sëñ Bassirou mi defe naa tey am na ay ndaw yoo xam ne dem nañ ngir nekkaat ci barab ba di liggéey ndax liggéey bi moom du jeex kon sant yàlla bu baax di dellusiwaat tamit di sant nag waa dëkk bépp. Hmm. di sant waa fédération bi. waaye di sant njabootu suñu Fallou si jéeg yëpp bàyyiwuñ kenn. ñu ngi ci war a lim maa wax nga limal ma ko. ndax bëgguma kenn di fàtte kenn. noonu nga ko waxee noonu la demee. ñooñu nga limit ñoo la ko limloo ndax seen taxawaay ci bis bi. ak jàppale goo xam ne ni dañ ñu koy jàppale. Hmm. ñoom ñëpp ku ci ne taxaw ko ci bis bi taxawaay boo xam ne. Hmm. kawe na suñ njort moo tax ñëw ngi leen di sant bu baax mhm. di sant tamit média bi nag mhm, xam nga lii ñuy defal dafa yóbbul plateau bu mel nii lu mat ñeenti télévision di ko di ko di ko tegandoo xam nga loolu sant yàlla la ndax tey jii waa Touba TV ñi ngi fi waa Lamp Fall ngi fi waa Leeral nekk fi waa Yëgle nekk fi ak waa ITV mhm. ak alxadimiye bi nga xam ne ñoo koy jël dem nekk site boo xam ne surtout borom Touba la. Mm, àgg na foo xam ne léegi. Mm. képp ku bëgg a leeral say mbir ci Serigne Touba sax ñoom ngay jël. Mm. kon nag ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. di ñaan yàlla nag bis bi ñu jublu ñu àgg jàmm euh, fekke ko ci jàmm def ko ci jàmm ñëpp dellu siwaat ci jàmm. di sant suñu bàjjenu bopp yii nag nga xam ne ñoo fi teewal jigéen ñi borom daaru mm-hmm. ndax ñii ay njabootu xalifa bi ñuy wax Serigne Cheikh Khady liggéey bu rafet ba mooy seen mm-hmm. waajur. Mm-hmm. bu ñëwee teewal nañ fi njabootu borom daaru gépp jigéen ñi la ci gannaaw it ñoo fi teewal taalibe yi njabootu borom daaru gépp ndax fii moom hmm. kër goo dugg rek genn la la ko hmm. tàmbali sëñ mu daaw bàll ba kër sëñ xalit hmm. amul ñaari bopp benn bopp rek la kon nag ñoo ngi ci waat ñëpp di delluwaat di santaan ñëpp di gërëm ñëpp li ma waxoon rek du ma fàttali dara ndax li ma doon wax lépp ñii wax nañ ko kilifa yi wax nañ ko kon nag maa ngi leen di ñaanal sëñ daan seen waxtaan wi yàlla leen suñu borom fay fay bu kawe seen jort sëñ Moustapha yow tamit di la gërëm bu baax ci sa taxawaay ndax lépp lu ñu nekk rek mm-hmm. yaa nga ca waaye la ñu waxante woon rek kanam rek lay jëm waaye du dellu gannaaw ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp mm-hmm. salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi am mbégte lool di sant bu baax sëriñ Abo di la gërëm bu baax itam ci kàddu yu rafet yi nga xam ne yëkkati nga ko waaye ci ndigalul Cheikh Mahamadoul Basir kon nag bis baa ngoog incha allahu rabbi war a doon sa 4 ñu di ko wootee fële ca Ceyeen Jolof ñu di ci woo mboole mbokk jullit yëpp ak mbokk taalibe yi njabootu sëñ Fallou si Dieng ñu ngi lay woo ci bis bu màgg boobu nga xam ni moom lañu ñu amaat kon sëñ sëñ sëñ léegi ne na fàttali ma ko jëmale ko ci njabootu sëriñ Mbacke màddina mm-hmm. ndax bis bi ni koy wootee ngir maam Faat Isa noonu lañ koy wootee waa islaawu daaray ni mm-hmm. ndax juróomi at ya fa Serigne defoon loolu la ñuy màggal. Mm-hmm. Euh, te ku nekk xam na ne Serigne Mbacke Madina ak Serigne moom dañuy benn. ndigal lii nga xam ne moom la ñu sëñ Basiiru Anta jox sëñ Xaadim jox ñu ko noonu la ñu ko sëñ Cheikh Mbacke Madina joxe ne nañ boole màggal yëpp def ko genn màggal moo tax la islaahu daare nii màggal nekk nga fa Sëriñ Tuubaa nekkoon ñu boole ko màggal gi ñuy màggal soxna Faati Isa di ko jëfee ci ndigalam nag ndax moom nii ñu suñ kilifa yi nekkee suñu kilifa noone la nekk suñu kilifa benn ndax sëñ Mbàkke Madina ak sëñ Fàllu ñaar ndax Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne mooy maamam beneen bi it soxna Isa mi nga xam ne mooy maamam ndax kenn ku ko ëppale ci soxna Faati Isa amut ni ci ñëpp maamoo noonu la ci maamoo noonu la ci waajuram ba sëñ Mbàkke Madina maamoo te damay wax ne xaw ma kenn waaye li sëñ Abdoulaye Lahat waxoon rek ne sëñ Touba de bu doon del si jamono ku nekk mën naa soppi toggin waaye leer na ko ne sëñ Mbàkke Madina bu sëñ Touba doo del si jamono du soppi aw toggin asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf Mbàkke Balla noo ngi am mbégte bu baax daayiratu Abraar seeti Serigne Mouhamadou Awa Balla ci kaddu euh, Serigne Ousmane ku ne xam na ni bokkoon nañ ci invité yi sax waroon fee yëkkati kàddu euh, ñuy fàttali ni incha allahu rabbi le premier janvier 2024 euh, di yem ak altine ci la ñu teg xeeru daara yi soxna Awa Balla Mbakke ji nga xam ne moom la ñu fas yéenee tabax mu doon daara yi jàngukaay yoo xam ne dañu fay tàggat ndaw ñi jàngal leen fa yar leen fa waaye nag mu doon fayuk Serigne Modaw Balla gu nu jaaree ci soxna Awa Balla mboolem daayiratu Abraar yëpp ñoo ngi koy fàttalee sëñ Maam Thierno Lo da ngay ñëw rek tëjal nu euh, li nga xam ne moom mooy euh, jataay bi ak xasaayit waaye itam ak walafal ñu mën a yëkkati jataay bi nag waajal mbokk yëpp ni leen incha allahu bu ñu demee ci le 4 janvier ci atum 2024 allahu rabbi ca fajiri noo ngi xaar ñëpp bu 22 heures jotee incha allahu rabbi dinañ fa amal beneen plateau boo xam ni lépp dañ koy waajal ànd kook Serigne Gana Messere Maxtaar ànd kook Serigne Abo ak ay boroomi xam-xam fa séene waajal jëm ca màggal ga sëñ Mame Thierno nga jë tëjal ñu jotaay bi noo ngi sant mbokk yëpp di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu sëñ Mame Thierno bisimilah bisimilah way mbër mu rëy doomi Seex Moodu sutub Cerno moom daaru bismillaay ma jóg way mbër mu rëy doomi Seex Moodu sutub Cerno moom daaru man manuma way waaju tee ma jéema way le ma man ndax way ko dama war man Cerno moom daaru mbër këla jàggi ruur moom moo jàggi maak maas moo fa jaajo yi fa lor yi moo ju ko topp yàlla topp yu nem topp gu wér moo topp seex moo du topp cerno moom daaru seex fallu moo gore fallu moo gore Seex Fallu moo goreem ga dama yem gore daaru raxmaan def ko muy daaru moo sopp sunu faati isa ma fa ceyeen moo tax mu raw ci ñëpp rom faf dama yem faati moo jara waay maam faati moo jara kañ moo sonne lépp demb moo kenn moom daaru maam jaara moo jara way maam faati moo jara roy maam faati moo yor mbaar mu kiral waa daaru maam faati moo jara maggal moo jara dox ba ca moo jara xëy ak di góor ndax moo fi def lu nu yéem sono waawaati noo ngi fi yow dunu dëpp dunu daay dunu daw dunu dëpp dunu daay dunu daw oh. may ni lépp lu nu sàkk fi yow oh. bu ñu tiit